والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والمغفرة والسداد في القول والعمل السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di sant borom bi subhanahu wa taala di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla ñu jubal jéggal ñu may nekk ñu dëgg ci wax ak jëf mbokk yi ñu dajale mooy tàggatoo maanaam ku nekk tàggat boppam kon ci loolu ñu xam ne tàggat sa bopp ci anam yu bëri la kon mbokk yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon di yëngalaat xel yi jazakumullahu xayran waaye ñoom ñëpp wala ba ñu ëpp ci ñoom war nañu tàggatu naka la ñu amee ci micro ndaxte dëgg-dëgg góor moom warul wax ko lu mu wax parce que nekkul ci réer nekkul ci la mais ci tàggatu la nooy waxee nooy toogee loolu yëpp dañ koy tàggat ndaxte li mbokk yi wax di nga xam ne li ci gën a bëri dégg kon nag nañu fexe tàggatu ci anam boobu dañu sàggal kon jotaay bi ñu ngi jëm ci loo xam ne lu rëy la te raglu lu rëy la te raglu kon ñu bàyyi ci xel mooy mabaari waxtu iman wa mooy lii wone ne suñu iman dëgg dafa feebar kon ku nekk dafa war a xër bu ñu junjee yenn melo bu ngi ci moom mu fexe tàggu ci bu ñu junj li ñu junj yëpp am lenn lu nekk yow nga sukkandiku ci borom subhanahu wa nga xam ne boo góorgóorlu rek da ngay wàññi kon ci loolu la ñu bugg a jëm suñu mbokk bi ñu koy defal mooy moo kene jazakallahu xayran li ñu doon ci moom yaakaar ko ci moom mooy njub ak xam-xam bu leer yàlla dafa fekk loolu la di indi la góorgóorlu na kenn kattanam te ba léegi mu ngi wéy di ko def ndax lii lenn ci góorgóorlu la di gën a xam gëstu leer kon mu ngi génn yàlla islamiya téere bu jàngi ñam lu am solo mooy sunna yi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu déglu ko baax a baax ñu déglu ko ci xel te fas yéene jëfe lii tax nit ki du jëriñu ci xam-xam mooy nga am niyatu naql loolu ngelawaay nañu góorgóorlu ndaxte lu bëri da ngay teew di waxtaan waaye du jëriñ ndaxte lu tax doo jëriñ yow la ngay dégloo waxtaankat bi la nga xaar ci moom mooy njuumte la maanaam di wax arab juum la wala jàpp ne ahadis yi muy riwaaya ahadis daifa wala bu ko waxee hadis bi lu ci seet naa si wax ci kii wax pare nga dootoo jëriñu kon bi idinillah kii ñu ngi joortu ne kullu subha kullu ahadis daifa bi idinillah du bokk ci programme bi nga xam ne moom la ñu indi kon ñu jox ko wax bi te di ñaan ci borom subhanahu wa taala yàlla na ko dëgëral wax leer ñu dëgëral ñu ni ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy dëgg wax tànn la ca rafet dem jëfee ji ko te buñ ko jëfee yàlla ko borom bi nam kon mooy moom Québec kon bal yatafaddal mashkour waaw munaasib munaasib bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah nahmaduhu wa nastaciinuhu wa nastagfiruh wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد على كل حال جزا الله الشيخ خير الجزاء في ما تفضل به من كلام نفيس وفوائد جمه فأxsan allahu ilayhi wa ajzala lahu almathubata fi dunia wal axira ci ñi nga xam ne ci ñoom la ñuy topp di roy ci ñoom ci wàllu daawa bokk na ci al imam Gallaajo Ka ndax bi ma koy xam boobu yàgg na torop wax dëgg yàlla ci daawa laa ko ma a xam ak ay nachaatam fa mu jógee fu sori la ci loo xam ni lu bari xëy na samay at bariwul loolu waaye am na leen lu ma ci xam ci loo xam ni moom exemple la ci wàllu daawa ci ndaw ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo ñëw ci seen ginn ci ginnaawam ak seen ginnaaw moom ak ñu fi nekkaloon ba tax bu waxee waxam wares na ko di déglu bu baax kon jazaahullahu xeyran ala kulli xaal al unwaan muy unwaan al muxaadara ma adri hal al unwaan mooy asbaabu daaf al iman wala madaahiru daaf al iman parce que am na farq bayn al amrayn asbaabu daaf al iman wa ziyaadati al iman loolu dafay delluwaat ci sabab yi nga xam ne mooy waral nit ki ngëm yàllam di féete suuf di dem suuf ak sabab yi nga xam ne mooy waral mu yokk bu dee mazahir yi mooy bu yokk bi amee ba noppi wala wàññeeku bi am li koy màndargaal ci ay jëf ak ci ay taxawaay ñaar yooyu kon am na farq man saraxatan bi ñu ma waxee mawduu bi parce xëy na ni ñu ma ko waxee xaw na ma bert tuuti li ma tasawur li ma tasawur fahmu ko comprendre ko ci li ñu ma proposé comme thème mooy al asbab walaysa al mazahir mooy asbaab yi cause yi nga xam ne mooy jeexital ci ngëm yàlla nit ki ci yokk ko wala wàññi ko mais nekkul al athar al mutarattiba ala wujudi ziyadati aw daaf nekkul jeexital yi nga xam ne moom mooy jóge ci yokkoom ak wàññeekoom ba tax na ci loolu ci lay continuer wéy euh, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci njariñ yaakaar naa xëy na mbokk nañ ma comprendre li ci njëkk mooy al iman taarifam Euh, parce que al xukmu faru tasawur mbir ni nga ko comprendre nan nga koy attee li njëkk mooy lan mooy ngëm yàlla ndax bu fekkee dañuy wax ci yokkam ak wàññeekoom foog ñu xam kon définition ngëm yàlla boobu di yokk wala muy wàññeeku lan la ndax dañuy xam ne définition bi dafa am rapport ak yokkam ak wàññeekoom ndax li koy gën a firndeel mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ni ngëm yàlla du yokk wala du wàññeeku ñu bari ci ñoom seen problème ci masala bu mi ngi tàmbalee ci définition al iman mooy bi ñu gisee ne kalimatul imaan hu bi maana tasdiq wa tasdiq laa yaqbalu al naqs wala ziyaada aslu tasdiq mooy ngëm yàlla wala boog gëm mooy dëggal ñoom ñu gis ne dëggal dara ci sa xol bu fekkee nit ki def na ko mënatul yokk wala muy wàññeeku da ngay dëggal wala ngay weddi ñaar yooyu benn moo ci am taarif boobu définition boobu depuis ci làkk bi ci arab soo ko ñëw ci ban sens dañ koy jox ci sharia ci islaam foog nit ki jaar ci balaa nag muy soog a commencé wax ci ak yokkoom ak ak wàññeekoom al iman ku mel ne cheikh lislam taymi rahimahullah moom dafa gis ne yi nga xam ne moo gën a jege ci définir ko mooy al iqrar te fi'lan boo delloo ci ahlul lugha dinañ la wax ne bokk na ci maani al iman al itminan wal iqrar mais doolu nañ ci tamit al tasdiq mooy saxal bu ñu waxee imaan ci làkk arab mooy saxal ñeen ñëw tekkee ko ak tasdiq bi nga xam ne mooy dëggal dëggal loolu indi tuuti par rapport ak seen définition boobu ñu am mu indi tuuti uute ci ñoom ni ñu déggee imaan ak ñi nga xamante ni ñoo ko teggi ñoo ko tekkee saxal bi nga xam ne mooy al iqrar hum baada ma thabatu ma yumkinuhum an baada tasbit yani caam mais bu ngeen paree noo fi na ko kenn def rek. man damay dem ci bi. voilà kon demal nga bàyyi ko moom def. la waaw ma ne nga bàyyi ko moom def ko. ala kulli xam ne spécialiste la ci affaire yi wala nga seet ku la xaar fële moom mu yow nga yore lii munoo nekk ñaari place. ala kulli xaal eh, al iqraar boobu nga xam ne am na ñenn ñu ko tekkee ngëm yàlla wala boobu gëm. ñeneen tekkee ko tasdiq am na uute bu mu indi ci déggin bi ñu am ci ngëm ci fekkente ne da ngay wax ci cadre l'islam euh, yi nga xamante ne bi ku mel ne cheikh l'islam gën na koo dëgëralee euh, ne al iman huwa bi maana al mooy saxal dara te saxal boobu nañu wax ban genre saxal la du rek ak tasdiq bi nga xamante ni mooy dëggal mooy ci liñ tuddee ak taadiya ak taaddi ndax boo xoolee baatu saddaqa da ngay wax saddaqtuhu mais doo wax amantuhu bu dee amantu foog nga ni amantu bihi loolu min xaytu taaddi mooy ne iman dafay soxla xarf pour mën a dem ci ki ngay waxal alors que saddaqa du soxla xarf kon ci bunt boobu alors que da ngay wax aqrartuhu comme ni ngay waxee amantuhu noonu ngay waxee aqrartuhu mais doo mën a wax saddaqtuhu saddaqtu euh, amantu bihi aqrartu bihi mais doo mën a wax saddaqtuhu mi foog nga wax sa bi bihi mooy sa sidq bu fekkente ni moom nga jëfandikoo foog nga soxla xarf ba muy lu ñu tuddee ak taaddi alors doo ko soxla ci iman comme doo ko soxla tamit fil fi taqrir wala fil iqrar naka noonu tamit fil maana ci maana bi ndax ak tasdiq yakunu lil muxbir bu dee da dëggal ki la wax moom ngay dëggal alors que bu dee gëm lim la wax loolu ngay gëm bu dee gëm la yakunu fil muxbar mooy lim la wax loolu ngay gëm kon ba léegi ci wàllu sens bokkuñu li koy gën a firndeel mooy tasdiq lii lii li nga xam ne mooy waroo ak moom mooy takdib mooy weddi alors que iman takdib du waroo ak moom kufur mooy waroo ak moom kufur muy weddi bi nga xamante ni moom lañ tuddee weddi kufur ci loolu day wane ne kon muqaabala boobu nga xamante ni moo am bayna tasdiq wa takdib am bayna al iman wal kufru loolu mooy wane ne kon ci maana fi'lan ñoom ñaar am nañ différence bokkul moo tax kon tekkee iman ne fi'lan huwa tasdiq faqat comme ni ko ñeen waxee ci ay tawaif wax ne aslu tasdiq annaas fiihi sawa ñëpp ñoo yem ci tasdiq loolu jural leen ay mbir yu bëri ci njuumte yo yoo xamante ni tàbbi nañ ci ci bu baabul iman moo tax kon définition boobu foog nit ki tel cee bàyyi xel ci tàmbali bi mooy définition baatu al imaan ci bañ rek ne al iman huwa tasdiq yem fa xataa ñi nga xam ni ci ñu mucc ci njuumte yooyu wala ñu bëgg mucc ci njuumte yooyu ñu tekkee ko tasdiq dañoo obligé indiwaat yeneen xuyuut muy tënkaat tasdiq bi ne nekkul tasdiq mutlaq tasdiq la boo xam tasdiq muqayyad la mawsuuf la ila axirihi ñeneen ci des ne tasdiq la boo xamante ni bi yastalzimu al amal yastalzim al amal dafay waral jëf ak yu mel noonu lépp pour mën a dugal al amal fi musamma al iman mais loolu yëpp day wane ni kon définition bi ci depuis ci làkk arab nit ki mun na faa faqastalu faqastal boo xam ni moo koy indil problème après ci compréhension bi muy am ci lan mooy ngëm euh, ci loolu la ahlu sunnati al iman charan bu fekkente ni sukkandiku nga ne ci ne mooy al iqraar ñu wax ne al iman huwa iqraarun bil qalb du ñu wax tasdiq rek mais dañ naan iqraarun bil qalb wa nutqun bil lisaan wa amalun bil jawaarix lu di fas la lu di di saxal la lu di saxal la ngëm bu ko waxee lu xol di saxal la làmmiñ tudd ko eh, ay cër tamit jëf ko làmmiñ da koy tudd tudduk làmmiñ dafay dugg ci ngëm yàlla subhanahu wa taala parce que làmmiñ am na ci wàll naka noonu tamit cër am na ci wàll mais ci xol bi la asl bi nekk ñetti mbir yooyu foog nga boole lépp pour mu dugg ci mu musammal imaan mais boo delluwaatee ci kuréel yi nga xamante ne ñoo définir imaan am nañ fa tuuti uute ak ahlu sunna ci compréhension ngëm yàlla subhanahu wa taala wala ngëm bu ñu ko waxee mooy ne ñenn si ñoom dañu wax ne li nga xamante ne bi mooy jëf yi ak li nit ki di fas ci xol bi benn mbir la benn du mën a dem bàyyi moroomam mooy dañuy wax ne al amal tadxul fi musamma al iman jëf yi dina dugg ci définition ngëm waaye charte si xala ji daf cee nekk condition boo xam ne fokk mu am pour nit ki ngëmam wér ñu wax ne léegi jëf yi ak li nit ki di fas ci xolam juz'un la yatajazza benn mbir la boo xam ne kenn mënu koo tàqale benn mbir la ensemble la boo xam ni mënoo koo tàqale ida dahaba baaduhu dahaba kulluhu bu ci lenn jógee lépp dem na loolu mooy alxawaarij wal mu'tazila ñoom dugal nañ jëf ci ngëm gis nañ jëf dafa nekk benn partie ci ngëm waaye boole bi ñu ko ci boolee dafa am problème parce que yamale ko ci dayoo bi mu am ci ngëm li mais dañ koo jël def ko mu nekk ci partie boo xam ne ruknu la ci boo xam ne saa bu ci jógee ngëmu nit ki dafay daal di fecceeku lépp ñu wax ngëm gi dafay wàññeeku mais ñoom dañ naan ngëm li day fecceeku moo tax kon ci ñoom bu nit ki defee li ñu tuddee al kabira imma mu jëf ko ci jëf boo xamante ni bàkkaaru kabira la wala mu bàyyi parce que kabira foofu ñoom seen mafhum du dugg rek du am sensu jëf rek même bàyyi da ciy dugg nit ki mën na bàyyi li mu bàyyi nekk kabira comme mën na jëf lim jëf nekk kabira kabira bu ñu ko waxee mooy bàkkaar bu mag bàkkaar bu mag nit mën na cee tàbbi ci jëf dara comme mën na cee tàbbi ci bàyyi dara ñoom ñaar yooyu yëpp dañ gis ne bu kuñ ki defee te lim def nekk kabira dafay fecci ngëmam loolu moo tax ñoom dañuy takfir bil kabira dañuy takfir bil kabira loolu kon da gis ne faru la ci asl mooy la fekk nit ki bu defee bàkkaar bu màgg ñoom ñu génn ko ci ngëm dafa am ci fu mu wéeru mooy ab bànqaas la ci fu mu wéeru fu mu wéeru mooy lan mooy ba ñu gisee ne ñoom jëf yi nit ki di jëf dafa nekk benn parti ci ngëm boo xamante ni mu mënu cee wàññeeku mënu cee jóge kon loolu moom mooy al asl indahum ñeneen tamit ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo utewaat ba léegi ci définition boobu mooy ñi nga xamante ni dañ gis ne ngëm moom mooy tasdiq mooy tasdiq bi ñu doon wax sànq mooy dëggal te nee nañ ñoom dëggal ci xol lay nekk dëggal ci xol lay nekk ñooñu ay kuréel lañ ñenn si ñoom dañ ne dëggal bi ci xol bi lay yem bu ko làmmiñ bi waxee baax na mais bu ko waxul baax na ndax dafa am ci ñoom ñoo xam dañu gis ne ak nutqu bil lisaan chartun zaid walaysa asli dañ gis ne wax ci sa làmmiñ ci ngëm charte la bu ñu ci mën a dolli mais nekkul charte boo xam ne bu ci ñàkkoon nit ki dañ naan gëmul mais li ëpp ci ñoom dañ naan nit ki day foog mu wax pour ngëmam wér ñooñu lañ tuddee al murjia loolu riwaay nañ ko jële ko ku mel ne al imam abi xanifa rahimahullah ñooñu lu ñu def kon dañoo génne jëf yi ci musamman iman ci li ñuy tekki di ko tuddee imaan dañ cee génne jëf yi ndax gis nañ ne tasdiq ci xol lay nekk ñeneen ñu ci des gis ne wax ji sax amul solo nit ki bu fekkee xam na waxuma tasdiq de mais bu fekkee xam na ci xolam gëm na loolu mooy madhabu jahm ibn safwan ñi ñu tuddee al jahmiya ñoom dañ ne al iman huwa al maarifa mooy nit ki bu xamee borom xam xamee ne seen madhab li muy waral mooy ne kon firawna ku gëm yàlla la iblis ku gëm yàlla la madhab boobu mooy afsadul madahib fi dunya mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne al mooy al beneen madhab bi ci des mooy madhab madhabul karamiya ñoom dañuy wax ne ngëm mooy li nga wax ci sa làmmiñ loolu amul kenn ku leen ci jiitu taifa boobu amul ku leen ci jiitu ñoom ngëm yàlla bu ko nit ki waxee ci gëm na taifa wax jooju ci l'islam mais wax yooyu yëpp li tax ñu koy wax chaque fois bu ñu définiree parce que nit boo xamee lu wér foog tamit ñu junjal la même bu ñu ci mënta sori loolu itam li nga xamante ni moo juum ngir nga xam ne léeg-léeg mbir yooyu même bu fekkee kuréel yañ ko daan askanale existé wuñ ci suñu dëkk yi léeg-léeg da gis ne fi'lan dina am jeexital ci ñenn ci jullit ñi ci boo xoolee définition ngëm yàlla gëm ñenn ñi jàpp nañ ne gëm ci xol lay nekk yàlla xol lay xool di ci tegtaloo ay xadis yu bëri inna allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum duñ ci dolli riwayat wa amalikum ila qulubikum ñu ne kon yàlla xol lay xool ngëm ci xol lay nekk la loo xamante ni bi bu bu genre euh, aqaid yu mel noonu pas-pas yu mel noonu tasee ci bopp jullit ñi na ñuy wax awaamun naas mooy ñi nga xam seen xam-xam soriwul yàqute yu bëri lay jur ndax da leen di sàgganloo ci seen diine daleen di sàgganloo ci seen diine di leen euh, may tamit ñu nekk ñu am euh, fit ci di def ay bàkkaar ndax dañuy jàpp rek na yàlla subhanahu wa taala ci xol lay xol loolu mooy tawaif yi nga xamante ni dañoo ute ak ahlu sunnati wal jamaa ci définition imaan Euh, ñi njëkk ñi ñoom dañ ci boole jëf waaye dañ gis ne jëf bu ca amee lu ci am problème ngëm li dafay fecceeku mooy ñuy wax ne juz'un la yaqbal at tajzia benn ensemble la mun koo mënoo koo mun mënoo koo tàqale ñeneen ñi ci des di wax ne jëf bokk ci amul rapport ak ngëm moo tax ko nit ki bu ngëmee bu gëmee ay jëfam mun munta fecc ngëm li moo tax ñoom dañuy wax ne ngëm yàlla mooy yàlla du ko wàññi dara ngëm yàlla mooy yàlla du ko wàññi dara la tadurru ma al iman maasiya nit ki bu fekkee gëm na ngëm gu wér euh, mooy yàlla du ko wàññi dara li problème bi foofu mooy ñoom bi ñu tekkee imaan tasdiq loolu fa la problème bi nekk te tasdiq xam nañ ni lii waroo ak moom mooy takk takdib ñoom ñu gis ne nit ki fekk deful takk takdib du génn ci l'islam ak lu mu mën a def ci ay bàkkaar fekk weddiwul loo xamante ne danaan lii dama koo weddi rejeté ko du génn ci l'islam moo tax ñoom istixlaal rek maanaam nit ki def bàkkaar mu bàkkaar bi màgg-màgg du génn ci l'islam fekk waxul ne bàkkaar bi dafa dagan bu ko waxee nag soo ko génne ci lislaam ñoom boobu charte rek ci la ñuy takfiire muy ci la ñuy génne nit ci lislaam loolu li ko waral mooy njumte la ñu am ci buntu boobu ahlu sunnati wal jamaa ci ni ko borom xam-xam euh, si ñoom ci ku mel ne alimamu laalakaayi fi charxi usuli itiqaadi ahlu sunnati wal jamaa dafay jëlee ci ku mel ne sufyan ibnu said althawri rahimahullah muy wax ne al imaan qawlun wa amalun wa niya qawlun wa amal wa niya la tasixu wala laa yasixu alqawlu illa bi amal wala yasixu qawlun wala amalun illa bi niya ngëm buñ ko waxee mu ne jëf la wax la ak fas mu ne wax ji du wér fekk àndut ak jëf jëf ji ak wax ji du ñu wér fekk ànduñoo ko loolu ki fas ci xolam fekk àndul ak loo xamante nit ki daf ko fas ci xolam kon ñett yooyu foog mu dajee ci pour ñu soog a mën a wax ne ngëm la ngëm googu nag bu fekkee dañu bugg ci tafsil ko ci ay détails dina ñëw ko ci mel ne xadisu jibril ci juróom benn bànqaas yi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam tekkee na ko ko loolu mooy bu fekkee danga nga dugg ci tafsil li nga xamante ni mooy ngëm lan mooy ay arkaanam mais loolu nekkul jumtuwaay jubluwaay waxtaan bi mais li ñuy wax mooy ngëm yàlla subhanahu wa taala ci boppam mooy ngëm googu nga xamante ni mooy ngëm gu généralisé ji nga xamante ni lépp lu nit ki di gëm ci lislaam da ciy dugg ci yàlla subhanahu wa taala ak la ci aju ci gëm yàlla ak ay yonentam ak ay téeréem ay malaaykaam bisu pénc ak ndogal loolu yépp ay tafasil la masail yooyu boo ko boolee lépp nit ki gëm gi mu koy gëm ci ngëm googu nga xamante ne dafa nekk benn ensemble ci loolu la ñuy waxtaan loolu gëm gi ko nit ki di gëm muy nekk ci xolam làmmiñ bi di ko wax di ko jëmmal di ko bëral ak di jëf parce que làmmiñ du yem rek ci wax day wax di jëf naka noonu itam cër yi di ko jëf loolu dafay yokk di wàññeeku loolu dafay yokk di wàññeeku loolu yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci quran ci lu war a tollook juróom benni bërëb ci quran ci yoo xam dafa am tasrix bi ziyaada maanaa dafa wax tudd yokkuk ngëm tudd yokkuk ngëm léegi seetluwuñu mu wax tasrix saraxatan naqs imaan maanaam wàññeekuk ngëm moo tax ñu riwaaye jëlee ci ku mel imam al imam malik mu tawaquf ci masalatu naqs mooy ñu laaj ko ci yokk mu saxal yokk ñu laaj ko ci wàññeeku mu taxaw ci loolu riwaay nañ jële ko ci al malik ndax boo xoolee ci quran doo gis fi zahirul quran li ñu tuddee zahirul quran kenn du wax ne doo gis ci alquran dañ naan doo gis ci li feeñ ci kaw aaya yoo xam ne dafay tasriix di wax ci façon bu leer na ngëm gi dafay wàññeeku mais am na ay aaya yoo xamante ni lu mat ci juróom benni bërëb yoo xam ne dafay wax ci wax bu leer na ngëm dina dina dina yokku borom xam-xam yi ku mel ne alimam Buxaari rahimahullah nga xam ne dañoo nekkoon ay fóore ci xam-xam lan la ñu wax dañ ne kullu ma yazidu yanqus lépp lu yokk dina wàññeeku parce que buñ ne yokk na ngëmam yokk na mooy kon laata muy yokk dafa wàññeeku woon buñ ne sa ngëm yokk na mooy laata muy yokk dafa wàññeeku woon parce que bu fekkoon dafa mat laata muy yokk kon du mën a yokk parce que lu mat ba fees dell du yokk loolu jëlee nañ ko ci ku mel ne ibnu uyayna aydan moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ci fu mel ne fa zaadahum imaana wala wa zidnaahum hudan yooyu yëpp ay ayat la yoo xamante ni bu njëkk bi tasrix la bi ziyadatil iman dafay leer ci ne ngëm dafay yokku beneen bi ci des mu wax hudan hudaa bu borom xam-xam yi tekkee ko ngëm ne yàlla subhanahu wa taala dafay yokk nit ñi ngëm euh, ibnu Uyayna bi ñu laajee ndax ngëm dafay yokk mu jëfandikoo ñaari aaya yooyu ben waaye laaj ko ne ko ndax nag loolu dañ ci mën a tegtaloo ne dafay wàññeeku mu ne laysa shay'un yaziru illa wa huwa yanqus amul luy yokk lu dana dina wàññeeku moo tax ibnu Battal di wax ne ma jamaati ahli sunnati min salafi al ummati wa xalafiha an al imaana qawlun wa amalun yaziru wa yanqus wal xujjatu ala ziyadatihi wa nuqsaanihi ma awradahu al buxaari min al ayaati al musarrihatu bi ziyadati al iman ibnu battal dafay wax ne ngëm yàlla ci ni ko ahlu sunnati wal jamaa jàppee dafay yokk di wàññeeku wax la jëf la ak fas lu nit di fas ci xolam di yokk di wàññeeku mu ne li firnde ci ne ngëm yàlla dafay yokk mu ne li nga xamante ni bi dee day yokk di wàññeeku mu ne li nga xamante ni al imaamul buxaari indi na ko ci téeram bi ci ay aaya yoo xam ni dafay wéral ne dafay wane ni ngëm dafay yokk ginnaaw ba lan la ca dafa ne fa imaanu man lam tax taxsul lahu ziyaadatu naaqisun bi mu junjee loolu ne li firndeel ne ngëm yàlla dafa yokk di wàññeeku mu ne mooy aaya yu mel ne yi nga xam ne alimaam Buxaari indi na ko ci téeram bi aaya yooyu dina ñëw ci kanam yi nga xam ne dafay wax ne yàlla day yokk lan la ci teg neewul ak aaya yoo xam ne dafay wax ne day wàññeeku de mu ne ki nga xamante ni ngëm yàllaam yokkuwul dafa wàññeeku ki nga xam ne ngëm yàllaam yokkuwul dafa wàññeeku loolu kon mooy ngëm yàlla dafay wàññeeku aaya yooyu bokk na ci li yàlla subhanahu wa taala di wax ne alladina qaala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fa zaadahum imaanahu wa qaalu xasbuna allah wa nicma alwakil yàlla subhanahu wa taala bi muy wax ci jullit yi ci jamono yontu bi alayhi salatu wasalaam di leen melal melokaan boo xamante ni lu sax ci ñoom la mën a nekk itam ci keneen ku dul ñoom muy wax ne ba leen nit ñi waxee ne nit ñi dajaloon nañ leen nit ñi wax leen ne nit ñi dajaloo dajaloo nañ ngir yéen muy waa Màkka foofu àll boobu noonu lil lil ahd lil ahd mooy ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo seen diggante ak ñoom dox na ak noonoo dox na fi gu war a mën a tax ñu daje ak yéen wala bokk ñuy jaamaarloo ak yéen mu yaxlu makka di Quraysh booloowu nañ ngir yéen jël leen seen i matuwaay moytandiku leen di mel ne kuy xupp pour ñu ragal yàlla subhanahu wa taala ne loolu daal di leen yokk ngëm yàlla subhanahu wa taala xabar boobu ñu leen xibaare ngir ñu waroon caa mën a tiite loolu yokk seen ngëm yàlla subhanahu wa taala moo tax mu ne fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allah wa nicma alwakil kooku fihi tasrix bi ziadati aliman hada nas fihi tasrixun bi ziadati aliman dafa nekk loo xam ne day day béral di leeral ne ngëm yàlla subhanahu wa taala dafay yokk ba léegi muy waxaat ne innama almuminuuna alladina ida dukira ida dakaru allah wala ida dukira allah wajadat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaana wa ala rabbihim yatawakkaluun mu ne ñi nga xamante ne bi ñooy ñi gëm mu nekk mu jël jëfandikoo adaatul xasr mooy ne dafay isbaat al xukmu ci al mazkur di ko nafi ci ma adaahu muy wax ne ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo gëm ñoo am melokaan bii mu ne mooy ñi nga xamante ni ñu leen tuddalee ay yàlla yi subhanahu wa taala euh, seen i xol dafay yëngatu mooy seen i xol dina am benn xaraka bu muy def xaraka boobu xaraka la boo xamante ni yataxaraku naxwa ziyaadati l iman mooy seen xol dafay yëngatu ci gën a gëm ak gën a dëggal li nga xamante ni moom moo ci nekkoon loolu li muy jur mooy seen ngëm yàlla subhanahu wa dafay yokk ndax wajal di am ci xol li muy tekki mooy la nga xamante ni bi loolu la façon loolu dafay daal di gën a dëgër ci biir xol bi da koy gën a saxal xol bi wow gi ci nekkoon dafay tàmbali dañ mu jëm ci nooy ci nooy loolu ñu tuddee xarakaatul qalb comme ni ko alimam ibnu taymiya rahimahullah di waxee mu daal di wax ne bu ñu leen jàngalee aaya yàlla yi subhanahu wa taala daf leen di yokk ngëm daf leen di yokk ngëm aaya boobu tamit am na ziyadatul iman boo xamante ni moom moo ci ñëw boo demee ci sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam di wax ne la yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min wala yashrabu alxamra xiina yashrabuha wa huwa mumin alxadis xadis boobu muttafaqun alayhi yonent bi alayhi salatu wasalaam di tudd ay bàkkaar bokk na ci muy wax bàkkaaru zina muy njaaloo ne koy def jamono ba koy def gëmul muy wax bàkkaaru naan sàngara mu ne koy def jamono ba muy def gëmul naf yi boobu muy naf yi naf yun lil kamaalil waajib lil kamaalil waajib walaysa li aslil iman parce que xam nañ ni njaaloo wala naan sàngara du génn nit ci lislaam kon dàq bi muy dàq ak ngëmam nekkul ne dafay dàq ne gëmatul weddi na yàlla mooy dàq boo xam ne dafay dem ba àggale ko ci génne ko ci lislaam àggul foofu mais li muy dàq mooy matuk ngëmam matuk ngëmam lay dàq ngëm gi nga xamante ne bi mooy ngëm gi mat ci moom te waroon a nekk ci moom ba tax muy dox digganteem ak bàkkaar yooyu ngëm googu amatu ko instant boobu bàkkaar bi rek lay gis moom moo fees ci xol bi waaye du caagante ni bu faatu woon ci jamono jooju dafa dee ci kéefër ndax ndax dañ na gëmatul ngëm gi génn na déggin boobu moom la ñu mel ne alxawaarij am moo tax ñuy génne ku def bàkkaar bu mag ci lislaam mais seen déggin boobu dafa nekk déggin bu terre nekkul bu sori ndax ñoom prendre ñu en compte yeneen textes yi nga xamante ni bii ñëw na yonent bi alayhi salatu wasallam daan nañ ko dégg muy wax ne allahuma la aysha illa ayshul axira yàlla dund amul lu dul dund alaxira est ce que day tegtale na kon adduna bi li ñu fiy def tuddul aysh mooy kamalul aysh fi l axira kamal moo loolu kon nafyul kamal la li koy gën a firndeel mooy yonent bi alayhi salatu wasalam bi muy wax ne man qaala la ilaha illa allah daxala al janna wa in zana wa saraq bi ko jibril dikkalee di ko bégal ne képp ku wax ci sa xeet la ilaha illa allah la shakk am na ay shurut dina tàbbi aljanna mooy dina mës a tàbbi aljanna loolu nekkul xatu ne fi'lan bu deewee rek day def direct aljanna dina mës a tàbbi aljanna parce que laa ilaha illallah dafay tere nit ki bu ko faatuwaalee muy sax safara dina dugg aljanna mooy kon dina mës a dugg aljanna mooy li mu waxoon ne man qaala laa ilaha illallah nafaathu yawman min dahrihi ku mës a wax laa ilaha illallah dina la mës a jariñ benn bis ci sa dund mooy bu bis bi nga xamante ne dina nekk sabab ci nga génn safara bu fekkee nit ki tàbbi na fa yonente bi alayhi salatu wasallam bi ko jibril dikkalee ko laaj di ko wax loolu daf ne ko ku ko wax ci sa xeet dina dugg aljanna donte dafa sàcc dafa njaaloo kon loolu mooy wane ne euh, kooku nga xamante ne bi mi ngi njaaloo fële wala muy naan sàngara wala muy sàcc yonente bi alayhi salatu wasalam naan ba muy def loolu gëmul ngëm googu muy wax ne gëmu ko nekkul ngëm gi nga xamante ni mooy tax mu nekk ab jullit bu ko amulee day daal di nekk yéefar du dugg ci loolu ba léegi abdullah ibn al imam ahmad rahimahullah dafay jële ci baayam di al imam ahmad euh, mun dañ ko laaj anil dañ ko laaj ci ñi nga xamante ni ñooy génn jëf ci ngëm mu daal di wax ne nahnu naqulu al imaanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus ida zana wa shariba alxamra naqasa imaanuhu mu ne ñun li ñuy wax te gëm ko ñun ahlu sunna mooy ne ngëm yàlla jëf la wax la dafay yokk di wàññeeku bu njaaloo woon naan sàngara ngëm yàllaam dafay wàññeeku mu mel ne dafay junj xadis boobu mu mel ne dafay junj xadis boobu loolu waxin la boo xamante ne daf la ci junjal ne la xadis boobu firnde la ci ne ngëm yàlla dafay wàññeeku ndax ki naan sàngara ki njaaloo ngëm yàllam dafa wàññeeku ba léegi yonte bi alayhi salatu wasalam di waxaat ne akmalul muminina imaana ahsanuhum xuluqa akmalul muminina imaanan ahsanuhum xuluqa bi mu saxal saxalalee kooku kamaalul imaan loolu kon mooy ki nga xamante ni bii àggul ci martaba boobu ci xusnul xuluq moom imaanuhu anqas kon xadis boobu dalil la fi'lan bin nas ci ne ngëm dafay yokku di dalil tamit bil mafhum ci liñ ciy déggee ne kon ngëm tamit dafay wàññeeku parce que dalaala dafa am ay dalalaat dalaalatul mantuq wa dalaalatul mafhum mooy dafa am loo xam texte bi da koy wax saraxatan nga déggee ko ci nii boo inversé woon sens boobu mu jox la contraire bi loolu tamit nekk dalalatu mafhum qaala ibn abdul bar alimam ibn abdul bar dafay wax ci tamhid ne wa maalumun annahu la yakunu hada akmal xata yakuna gayruhu anqas mu ne yonte bi alayhi salatu bi mu wax ne akmalul muminina euh, ahsanuhum xuluqa ki gën a mat ci jullit ñi ngëm mooy ki leen gën a rafet jikko mu ne la shakk ne moom du mën a nekk ki gën a mat ngëm fekk nekkul ne ñi nga xamante ni ñoo dul moom defuñu li mu def ñoo ko gën a néew ngëm kon moo gën mat ngëm ñi nga xamante ni moo leen raw ñëpp kon ñoom ñoo ko gën néew ngëm kon gën a néew am na ci xadis bi gën a bari la am na mooy ne kon day yokk di wàññeeku ba léegi moom yonent bi alayhi salatu wasallam muy wax ne man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imanuhu wa hadha alhadith rawahu alimam abi dawud wala abu dawud rahimahullah fi sunan alhadith alawwal rawahu ahmad yonent bi alayhi salatu wasallam di wax ne koo xamante ni bi dafa bëgg te yàlla rek tax loolu ci bànqaasi ngëm yàlla gi yi gën a màgg la bokk mu bañ te la muy bañ tamit mu sëkkandiku ci ci yàlla subhanahu wa taala muy joxe te yàlla tax di xañe te yàlla tax xadis boobu day firndeel ne kon nit ki nga xamante ni melokaan yooyu daje na ci moom ngëmam mat na ki ko amul ngëmam matul kon ngëm dafay yokk di wàññeeku ba léegi tamit yonente bi alayhi salatu wasallam di waxaat tamit ba léegi ci beneen xadis al imam muslim moo ko soloo ne man raa minkum munkaran fal yuxayirhu bi yadi fa in lam la ci teg wa dalika mooy ne kon nit ki bu fekkee dafa gis ñaawteef te mën koo dindi ci loxoom na ko dindi ak loxoom bu ko mënul mu wax ko ci làmmiñam bu ko mënul mu bañ ko ak xolam bañ ko ak xolam ne allahuma hada munkarun la arda bihi loolu mooy martaba bi gën a néew ci ngëm yàlla martaba bi gën a néew ci ngëm yàlla loolu kon mooy wane ni al iman yazidu wa yanqus min aqwali salaf ci wax yi nga xam ne jëlee nañ ko toxal ko ci borom xam-xam yi fi jiitu woon min alsahabati waltaabiin walladina jaau baadahum yoo xam dafay tegtale ne ngëm yàlla filan dafay yokk di wàññeeku euh, ku mel ne yaxya ibn said alqattaan dafay wax ne ma adraktu ahadan min asxaabina illa ala sunnatina fi liman wa yaqul alimaanu yazidu wa yanqus alimam yaxya ibn said alqattaan dafay wax ne dajewu ma kenn te mi ngi dund ci ñaareelu ñaareelu téeméer at yi nga xamante ni mooy deuxième siècle bi topp ci siècle yonente bi alayhi salatu wasalaam muy wax ne dajew kenn ci suñuy àndandoo yi ñu daan àndal di gëstu ci ñoom xam-xam parce que asxaab fii li mu ci namm mooy ñi nga xamante ni ci ñoom lañ daan jëlee xam-xam di dellu ci ñoom di jëlee ci ñoom xam-xam mu ne amul kenn ku ma fi ku ma dajeel mës a dem ci moom di jël ci moom xam-xam di xam-xamu sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam lu dul ne li ñu gëm ci ngëm yàlla loolu la gëm mooy ne ngëm yàlla wax la jëf la dafay yokk di wàññeeku dafay yokk di wàññeeku alimam ahmad di wax ne ajmaa sabuuna rajulan من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمورا منها أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا رواه أخرجه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد الإمام أحمد di wax ne dëppoo na dëppoo na lu tolloog juróom-ñaar fukk ci taabi'un yi nga xam ne ñoo jàngee ci saxaaba yi ak ñi nga xamante ni ñooy ay kilifa ci lislaam di ay borom xam-xam yu mag ñuy dellu ci ñoom ci ci lislaam mu ne dëppoo nañ ci ay masail yoo xamante ne ay masailu ngëm yàlla la ay masailu pas-pas la mu lim ci masail yooyu yu bari yoo xam ne mu ne borom xam-xam yooyu yëpp dañ cee dëppoo bokk na ci masail yooyu mu doon lim ci masailu pas-pas mooy ne ngëm yàlla jëf la wax la dafay yokk ci def li yàlla santaane di wàññeeku ci mooy yàlla subhanahu wa taala loolu al imam ibn al jawzi mu ngi koy nettali ci manaqib al imam ahmad ba léegi al imam al buxaari rahimahullah dafa wax ne laqitu akthara min alf rajul min al ulamai bil amsar fama raaytu ahadan yaxtalifu fi anna al iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus wa hada fi sharxi usul al i'tiqad lil lalaka'i al imam al buxaari dafay wax ne daje naag lu mat junni ci ay boroomi xam-xam ci dëkk yi ma dem yépp mu ne daje naag ci ñoom lu tolloog junni ci ay boroomi xam-xam yi boroomi xam-xam ahli sunna mu ne gisuma kenn ci ñoom muy uute ci ne ngëm yàlla jëf la wax la dafay yokk di wàññeeku mu ne gisuma kenn ci ñoom muy dangi dangi di ute ci loolu moo tax abu darda daan wax naan min fiqhi rajul an yataahada imaanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqhi al abd an yaalam ay yazdaadu huwa am yanqus ay yazdaadu huwa am yanqus abu darda daan ne wax naan bokk na ci xam-xamu nit muy nemmeeku ngëm yàllaam di xool lan moo ci wàññeeku mu ne bokk na ci xam-xamu nit muy nemmeeku boppam ndax moom mi ngi yokk wala mi ngi wàññeeku loolu mooy ci diine moo tax ibn abdul bar moom daf ci xikaaya ijma daf ci xikaaya ijma mooy dafa gis ne kon ñu ute ci masala boobu seen wax desu ko bàyyi xel desu ko sóoraale ndax loolu suzuz lañ koy tuddee suzuz mooy boo xam ni ay nit dañoo beddeeku taxaw fale wax loo xam ni ay tegtal du ko jàppale loolu du ko jàppale mu ne ajmaa ahlul fiqhi wal xadis ala anna al imaana qawlun wa amal wala amala illa bi niya wal imaanu indahum yazidu wa yanqus wala yazidu bi taati wa yanqusu bil maasiya ibn abdul dafay wax ne borom xam-xam yi fiq yi ak borom xam-xam yi xadis yi mu ne dëppoo nañ ci ne ngëm wax la ak jëf mu ne te itam nit ki jëfam du mën a wér fekk li muy jëf di ko wax fasu ko ci xolam fasu ko ci xolam mooy kon ñett yooyu fokk ñu daje si mu ne te itam dañoo dëppoo ñoom boroom xam-xam yooyu ci ne ngëm dafay yokk ci def topp yàlla subhanahu wa taala di wàññeeku ci mooy borom bi subhanahu wa taala loolu kon dafay wane ne fi'lan li nga xamante ni mooy as-saxiix wa huwa madhabu ahli sunnati ne al iman bi maana al iqrar wa huwa qawlun wa amalun wa niya yaqbalu ziyadata wa nuqsaan mooy ne ngëm yàlla subhanahu wa taala lu nit ki di fas la di ko wax di ko jëf jëf yi dafay dugg ci maanaa ngam yàlla dafay yokk di wàññeeku dafay yokk di wàññeeku wa hada huwa al madhab as-saxiix nga xam ne ngëm yàlla dina ko yokk ku mel ne cheikh lislam taymi rahimahullah ci majmuul fatawa ci al imaanu al kabir daf ciy tafsil awjuhu ziyadati al iman daf ciy leeral ngëm yàlla bu fekkee dafay yokk ci yan côté lay yokkee ci yan côté lay yokkee mu ijmal ko ci ay tomb yoo xam ne war na mat juróom-ñeenti tomb mu wax ne min jihati al ijmal wa tafsil fi ma umiru bihi mu ne ngëm yàlla nit ki dina yokk su fekkente ni xool nga ko ci anam boo xam ne anam bu yaatu la wala nga càmbar nga ko mu ne ci li nga xam ne loolu la yàlla subhanahu wa taala digal nit ñi seen ngëm yàlla da ci rawante ci lim leen digal nit ki nga xamante ni liñ ko digal ci ay santaane moo gën a mat ki nga xamante ni bi mënut a taxaw ci santaane yooyu kooku ngëm yàlla moo gën a mat masalan jigéen lan moo tax yonent bi alayhi salatu wasalam ne naaqisaatu aql wa diin parce que day toog du julli day toog du woor toog boobu muy toog du julli loolu naqsa la ci diineem naqs boobu naqs la fi imaaniha mais naqs boobu daf ci am uzur mooy da ci am ngant kenn du ko ci ŋàññ mais ak lu mën a am wàññeeku la ci diineem ki am mën-mën yàlla may ko mën di taxaw ci jaamu yàlla yi comme ni mu waree am genn azaka am dem màkka loolu xéwal la bu ko yàlla defal yàlla sant ko ko ndax shurut yi dajana ci moom condition yi tax mun koo def dajana ci moom keneen ki ci des amu ko munu ko defu ko kii moo gën a mat jëf kon ci xoo soo xoolee ci matub jëf gi ngëm yàlla moo gën a mat parce que bu dee da nga ni jëf yi day dellu ci ngëm yàlla gi bu taxawee ci jëf yooyu la chaque ne ngëm yàllaam da koy yokkee ki ci taxawul moom ngëm yàllaam manqué ci loolu ba fa nga xamante ni fa la toll mais foofu wàññeeku googu wàññeeku la goo xam ne nit ki da ciy am ngànt da ciy am ngànt kenn du ko ci ŋàññ beneen bi ci des min jihatil ijmal wa tafsil fi ma waqaa minhum beneen bi ci des mooy li nga xamante ne bi ñoom ñoo koy def léegi fii amatul rapport ak seen diggante ak seen borom mais li nga xam ne mooy jóge ci ñoom ci ay jëf loolu nit ñi ci ndax ci nit ñi am na si ñoo xam ni gëm li yàlla subhanahu taala jox yonentu bi alayhi salatu wasalam duñ ko ci wet duñ ko ci weddi benn yoon waaye dañ koy dëddu duñ ko gëstu duñ ko jàng duñ ko xam bu ko defee ñàkk koo xam ñàkk koo jëfe mënu leen a ci ngëm gi ndax gëm nañ ko dëggal nañ ko waaye bañ gàttañ loo ci xam ko ngir jëfe ko foofa seen yàlla da ciy am gàttañlu selon fa seen gàttañlu yem ci ñàkk xam mbir moom pour taxaw ca keneen moom yàlla subhanahu wa taala def mu jàng ginnaaw bi mu dëggalee gëm yonent bi alayhi salatu wasalam jàng li mu indi xam ko waaye jëfeewu ko fa gàttañ loom toll ci jëfe foofu la ngëm yàllaam mi di toll ci ak wàññeeku ak matadi ak ak doyadi keneen ki ci des mooy ki boole ñett yi gëm gi jàng bi gëstu bi xam ko daal di koy jëfe taxaw ci kooku moom moo leen gën a mat ngëm kon ñoom ñëpp ci li ñuy taxaw di ko jëf ci ay jëf tolloowuñ ci dañ ciy tool dañ ciy rawante ku ci nekk sa kéem fa sa góorgóorlu yem ci xam njub bi yonente bi alayhi salatu wasallam indi nga dëggal ko ci taxaw ci jëfe ko noonu la sa ngëm yàlla subhanahu wa taala di gën a kawee fi ci des moo tax mu ne woon fastabiqul nit ñi dañuy dañuy ëppalante ci loolu tolloowuñ ci beneen bi ci des mu ne min jihati ilmi alqalbi wa tasdiqihi mooy xam bi xol bi di xam ne dëgg la yonente bi alayhi salatu indi nit ñëpp tolloowuñ ci ni ñu ko xamee nit ñëpp tolloowuñ ci kóolute bi am ci li yonente bi alayhi salatu wasallam indi parce que ñëpp bokkuñu ni ñu ko xamee ki la gën a dëgër ni mu ko xamee gën la dëgër ni mu ko gëmee parce que ni mu xamee moo gën a leer moo gën a dëggu ci ni nga ko xamee yow kooku moo lay gën a dëgër ngëm yàlla subhanahu wa taala nit ki bu fekkente ni ni mu xamee dëggug yonente bi alayhi salatu salaam ci lim indi dafa nekk lu néew doole taxu koo dëgër tegul ci ay firnde yu leer kooku ngëm yàllaam du dëgër moo tax kooku leen pour ay subuhat ñëw gaar ko ci ngëm yàlla mooy ay mbir yu lënt ko ci ay dafay yomb beneen ci des tamit mooy ba léegi ci wàllu xol am na ci beneen yokk goo xamante ne bii ngëm yàlla na ko ci yokk ci xam xam boo xamante ne bii du dellu xëy na ci wàllu dëggal mais xam rek ki nga xamante ni moo la gën a xam fi'lan xam boo xamante ni jëf da cay juddoo kooku moo lay gën a gëm euh, kémtalaay fa xam-xamam toll beneen bi ci des mu ne min jihati amali alqalbi kal mahabati wa rajai wal xawfi wa gayriha beneen bi ci des mu ne jëfi xol yi nit ñi tamit tollowuñ ci dañ ciy rawante ci wàllu ngëm yàlla kon nit ñi dañ sutante ci ngëm yàlla ci jëf yi seen xol yi di jëf ci lu mel ne yaakaar borom bi subhanahu wa taala loolu a koy def ki la ko gën a yaakaar kon kooku moo la gën a gëm parce que loolu jëfu xol la moo la raw ci jëf boobu nga xam ne dafa bokk ci ngëm yàlla naka noonu bëgg borom bi subhanahu wa taala di bëgg ci yàlla bëgg yàlla ak di bëgg ci yàlla mooy li ngay bëgg nga ci xool yàlla subhanahu wa taala loolu ka la ca gën a dëgër te loolu jëfu xol la moo la gën a am ngëm yàlla subhanahu wa taala naka noonu ragal yàlla subhanahu wa taala ragal boobu ñu tuddee al xawf di jóge ci xol ka la ko gën a def itam ci xolam moo lay gën a euh, ragal yàlla subhanahu wa taala kon ci côté boobu tam nit ñi dañ fay rawante ba léegi kon Euh, ziyaadatul iman wa nuqsaanuhu mooy nit ñi dañuy rawante ci ngëm kii gën a gëm kii ki gën a kii léeg-léeg nit ki mën na cee juum ci ni mu koy déggee ci jël rek lépp focaliser ko ci ay jëf yi nga xam ne moom lay gis nii ci kaw alors que yàlla dépassé na foofu ngëm yàlla gën a yaatu ensemble la boo xam ñu bëri lañ ci war a bàyyi xel yu bëri lañ ci war a bàyyi xel mu daal di waxaat ne min jihati amalil jawarih alzahira wal batina mooy li ñuy wax léegi nii mooy ne ba léegi nit ñi dañu rawante ci ngëm yàlla tamit ba léegi ci boo ko seetloo ci wàllu jëf yi nga xam ne mooy jëfi cër moo xam jëfi làmmiñ la wala jëfi jëfi cër yi nga xamante ni mooy cëri ci biti ci liñ kii di def ci ay jëf yu baax ak li muy bàyyi ci ay jëf yu bon nit ñi tamit dinañ rawante foofu ci ngëm yàlla ci kële ci gën a góorgóorlu ci di def lu baax ak di moytu li nga xam ne moom lañ ko tere moom moo lay gën a taxaw ci moom moo lay gën a am ngëm yàlla subhanahu wa taala ginnaaw bi nga xamante ne li nekk ci xol bi tamit nekkee na ci anam ba mu war a nekkee ndax al jawahir rek du doy parce que al zawahir laysat qat'iyatu dalala ala xol bi bu fekkente ni tamit jëf bi mu ngi góorgóorlu ci biti dafa war a nekk mu am tasis bu wér ci xol bi dafa war a nekk mu am tasis bu wér ci xol bi mooy lu mel ne al imam Sufyan ibn Sa'id waxoon sànq ne laa yuqbalu qawlun wala amalun illa bi niyya illa bi niyya tayib kon ci côté boobu tamit nit ñi dañ fay sutante ci ngëm yàlla mooy nit ki ngëm yàllam dina wàññeeku wala mu yokk par rapport ay jëfam jëf yooyu bu ñu ko waxee li ngay def da ciy dugg li ngay bàyyi da ciy dugg li ngay def ci ay jëf yu baax ak li ngay bàyyi ci ay jëf yu bon loolu yépp dafay ci ngëm yàlla subhanahu wa taala nit ki kon bu ñu waxee yokku ngëm wala wàññeeku ngëm du foofu rek nga ko mën a nattee loolu benn point la ci point yi ñuy xoolee ngëm yàlla gu yokku ak ngëm yàlla gu wàññeeku muy jëf yi feeñ ci biti beneen bi ci des min jihati istihdaar al qalbi lima umira bihi wa nuhiya anhu wa adamu al ghaflati anhu beneen bi ci des mooy xol bi ak yeewoom xol boo xamante ni nelawul dafa yeewu di bàyyi xel bu baax liñ ko digal mu koy sàmm di bàyyi xel bu baax liñ ko tere xol bi la gën a yeewu ci loolu ci di bàyyi xel bu baax mbiri borom bi subhanahu wa taala ak di ko bañ a fàtte di ko bañ a sàggane xol boobu moo la gën a dëgër ci ngëm yàlla que xol bi nga xam ni loolu du ko di jëmmal ci boppam du ko di teewlu fu mu toll ndax nit ki buy teewlu loolu moo koy waral muy mën di góorgóorlu ci digganteem ak boromam ci di taxaw li ko yàlla subhanahu wa taala di sant ak tamit di moytandiku li ko borom subhanahu wa taala di tere moo tax Omar ibn al-Habib daf daan wax naan wa huwa min as-sahaba wa hamadnahu wa sabbahnaahu fa tilka ziyadatuhu wa ida gafalna wa nasina fa tilka wala wa daafna fa tilka nuqsaanuhu daf doon wax naan bu fekkente ni tudd nañ yàlla subhanahu wa taala loolu comme définition la bu muy def yokk ngëm ak wàññeeku ngëm mu ne bu fekkente ni tudd nañ yàlla subhanahu ñu kañ ko ñu fàttaliku ko mu ne suñu ngëm dafay yokk loolu mooy yokk suñu ngëm mu bu fekkente ni nag fàtte nañu borom bi subhanahu wa taala ñu sàgganee ko tudd delloowuñ suñu xel ci suñu borom subhanahu wa taala mu ne loolu mooy wàññeeku suñu ngëm mooy ne kon xol bi yeewoom gi muy yeewu di jëmmal ndigali borom bi subhanahu wa taala ak ay tereem ak di ko teewlu ak bañ a sàggan ci loolu loolu dafay dellu ci matuk ngëm gi ci nekk en fonction ni ci ngëm bi toll noonu la bi di teewloo mbir yooyu waaye en fonction nu ngëm bi di suufee noonu la bi di sàgganee mbir yooyu la beneen bi ci des moo tax yàlla subhanahu wa taala wax naan wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta beneen bi ci des mu ne min jihati ittilaa'ihi ala thubuti ma kaana yunkiruhu fa yazdaadu imaanuhu mooy mathalan qad yasmau al aya wal xadis aw yatadabbaru dalik aw yufassar lahu hada kalaamu cheikh alislam rahimahullah aw yufassar lahu maanaahu aw yadhar lahu dalika bi wajhin min alwujuh fa yusaddiqu fa yusaddiqu hada al amr alladi xadata lahu fa yazdaad lahu iman yani yatajaddadu lahu shay fa yazdaadu bihi imaanuhu mooy koo xamante ni mooy beneen jiha bu mujj bi mujjee wax wala bi bi nga xam ne mooy avant dernier bi mu ne koo xamante ni dafa xamul woon mbir xamu ko woon loo xam ne ci diine la bokk ci ngëm yàlla la bokk mu réere ko woon parce que xëy na xamu ko xam-xam bi jotu ko wala interprété na ko interprétation boo xam ne wérul mu ne bis ñëw mu dégg ab aaya wala ab xadis boo xam ne xamul woon ne mbir mi fi'lan dafa sax mu ne benn xam-xam bu bees ñëw boo xam ni bokkul woon ci li mu fas bokkul woon ci li mu gëm wala bokkul woon ci li mu jëf wala bokk problème bi mu ci amoon ba tax mu interprété ko interprétation bu wérul ñu leeralal ko ko mu comprendre ko léegi nag loolu yokk ci ngëm yàlla am kon loolu le temps bi mu koy rejeté ko woon ndax ñàkk am compréhension wala ñàkk koo xam loolu kon dafa wàññeekoon ci ngëmam parce que parti boobu bokkuloon ci ngëmam mais bi bi mu xamee loolu léegi mu del si dal di ñëw dugg ci place am ngëm bi yokku na ngëm bi yokk na kon ñàkk a xamoon mbir dem ba jamono nga xam ko dal di koy gëm léegi fas ko ndax xam nga ni léegi lu wér la day daal di yokk ci sa ngëm lam fa fekkoon da koy daal di yokk beneen bi ci des mooy min jihati al asbab al muqtadiya li ziyada beneen bi ci des mooy ci góorgóorlu ci sabab yi nit ki ngëmam dina yokk par rapport ak ni muy góorgóorloo ci sabab taxaw ci sabab yi nga xam ne moo koy yokku ngëmam dina wàññeeku ci par rapport ak ni muy taxawee ci sabab yi nga ne bii moom mooy wàññi ngëmam wala ni muy sàgganee sabab yi nga xam ne mooy yokk ngëm yàlla subhanahu wa taala kon aw juf yooyu yëpp boo ko xoolee neuf la yoo xam ne bu ci nekk da nga ciy gis yokku ngëm yàlla ak wàññeeku ngëm yàlla mais doo focaliser wu bu ñuy wax ci ngëm yàlla rek ci wàllu jëf yi nga xam ne mooy feeñ ci biti euh, ci li nit ki di def ci li ñuy gis wala mu koy bàyyi loolu fi'lan ci ngëm yàlla subhanahu wa taala lay dugg mais du foofu rek la ñuy nattee ngëm yàlla subhanahu wa taala bu yokku wala bu wàññeeku léegi ci li nga xam ne moom moo gën a nekk jubluwaay waxtaan bi mooy li ñu tuddee al asbab mooy yi nga xam ne mooy sabab ndax bu ñu waxee sabab la shakka ni sabab nekkul qat'i nekkul loo xam ne bu ñu waxee sabab rek musabbab bi da ci daal di topp mooy bu ñu nee sabab bi am na rek fi'lan li nga xamante ni moo ci topp moo ci war a da ciy daal di topp muy résultat bi day delluwaat ci ndogalu yàlla subhanahu wa taala day delluwaat parce que sabab nekku ne dafa am taasir zaati loolu masala boo xamante ni al ahlu sunna dañ ci xaw ute ak euh, al ashaira masala boo xaw a sori la ci pas-pas mais ala kulli xaal sabab yi buy jeexital dafay jeexital ci yàlla subhanahu wa taala bu mu ko jox ci mën a jeexital lépp day delluwaat ci euh, qudratullah subhanahu wa taala bu ñuy wax ci sabab yi dañuy wax benn wax bu alimaam ibn alqayim wax bu am solo mu ne al abdul mumin al muwafaq la yazaalu yasaa fi amrayni mu ne ahadihima taxqiqul iman wa furuihi mu ne loolu day nekk amalan wala ilman wa amalan wa xaalan mu ne nit ki nga xam ne dafa gëm yàlla yàlla teg ko mu soobu ci siratullahi almustaqim mu ne kooku dafa war di góorgóorlu fu mu toll ci di ñaari mbir ci réaliser ñaari mbir bi ci njëkk mooy ngëm yàllam mu góorgóorlu ci taxaw ci ngëm yàllam di ko suuxat ak di ko sàmm ci muy yokk ca la muy xam ak ca la muy jëf ak ci anam bi mu nekkee yépp da ci war di góorgóorlu di yokk ngëm yàllaam ca la mu xam xam-xamam ci jëfam ak ci anam bi mu nekkee loolu dafa war a nekk principe ci dundam moom jullit boobu nga xam dafa gëm yàlla subhanahu wa taala mu ne wa thani assaayu fi dafi ma yunafiha wa yunaqiduha wala wa yanquduha mu ne beneen bi ci des mooy góor góorgóorlu fu mu toll ci di défendre ngëm yàllaam ci lépp loo xam ne dafay dafay wàññi ngëm yàlla gi wala mu koy fecc da ngay def sabab yi nga xam ni mooy dëgëral sa ngëm di la ko sàmmal ci li nga xam ak li nga jëf ak sa anam bi nga nekkee loolu nga ciy góorgóorlu sa kémtalaay kàttan waaye tamit mu ne war ngay def sa kémtalaay kàttan tamit pour réaliser beneen ñaareel bi ci des beneen principe bi ci des mooy fexe bay sàmm sa ngëm yàlla ci wattu ko ci yi nga xamante ne bi ñoom ñoo koy fecc wala ñu koy wàññi loolu la lu dul ne nit ki dafa yittewoo xam ñaari mbir yooyu yëpp yan yoon la mën a jaar pour am ko parce que benn bu ci nekk ci ñaari mbir yooyu principe la war a doon ci diineem bu fekkente ni yàlla baaxee na ko mu am ngëm yàlla dafa war a góorgóorlu ci ngëm yàlla googu di yokk di gën a dëgër loolu benn la mais bu doon def loolu te sàggane yi nga xamante ni bi ñooy ñëw di menacer ngëm yàlla gi ba léegi defagul li ko war mooy li ñu tuddee alximaaya mooy dafa war a tamit fexe taxaw ci deuxième principe bi mooy di sàmm ngëm yàllaam ci lépp loo xam dafay ñëw di agressé ngëm yàlla gi ko fecc ñaari yooyu du ko mën a matal mukk taxaw ci fekk bu ci nekk xamul ci yan yoon la ko mën a jaare xam yoon yi nga xamante ni ci la mën a jaare ngir yokk ngëm yàllaam mu jaar ca ndax nit boo xamul dara mënoo koo def beneen bi ci des mooy mu xam yi nga xamante ni tamit fexlan mooy yi nga xam ne dafay fecc ngëm wala mu koy wàññi pour mun koo moytandiku kon tamyiz boobu foog mu foog nit ki def ko ndax yàlla subhanahu taala mi wax ne wa anna hada sirati mustaqiman daf ne fattabiuhu lii mooy sama yoon wu jub li ci war a topp mooy topp leen ko hada bil ishaara mu xamal la njub ne la jaar ci beneen bi ci des mu ne wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabilihi bu leen topp yeneen yoon yi ci des mooy ne kon yemul rek ci ne la toppal siratul mustaqim pourtant loolu loolu lay waral parce que al amru bi shay nahyun an diddihi bu la nit dëggalee dara dalaa tere contraire bi bu ne la jaaral ci siraatal mustaqim loolu lim loolu doyoon na rek pour nga déggee ci ne kon waroo topp leneen lu dul loolu mais masala boobu am na tuuti xilaaf mu takkit ko ci ne la moytandikul yeneen ñal yi ci des kon digal na la tere na la digal bi mooy fortifier sa ngëm yàlla tere bi mooy nga ximaaye yi nga xamante ni mooy li ñu tuddee al maddatul fasida mooy li nga xam ne dafay ñëw di yàq sa ngëm yàlla subhanahu wa taala kon ñaar yooyu foog mu am mooy nga saxal ngëm gi yokk ko isbaat tasbit ko beneen bi ci des mooy def ak ximaaya bi nga xam nit ki war na ko def ñaari arme yooyu foog nit ki boole ko way la chaque fois ngëm yàllam dafay nekk ci menace loolu kon dafa war a nekk jubluwaayam dafa a nekk jubluwaayam tayib asbaab yi nga xam ni moom la moom la ñuy wax ci asbaabu ziyaadatil imaan mooy yoo xamante nit ki bu fekkente ni sabab la yooyu xëy na jaar na ca mën na yokk ngëm yàllam yu bari la desu ko wax ala sabilil xasr mais dañ ciy wax ala sabilil tamthil wax ci xëy na ci joxe exemple yi nga xamante ne gis nañ ni moo ci xaw a gën a màgg gën cee yaatu nga xam ne bu ci nit ki góorgóorloo yarhamkallah bu ci nit ki góorgóorloo mën na koo jural ngëm yàlla gu yokk junj tamit yi nga xamante ni ci gën a màgg nga xam ne dafay waral nit ki doyo dik ngëm yàlla pour gën pour mu mën mën koo moytandiku ndax araftu charra la li charri lakin li tawqihi fa man la yarifu charra min annaasi yaqa fihi da xam lu bon ngir moytandiku ko wa kadalika nufassilu l ayaati wa li tastabina sabilu l mujrimin yàlla subhanahu wa taala day leeral ay firndéem ngir itam nga mën a xam yoonu njengate nga moytandiku ko da ngay xam lu bon pas pour defi ji ko waaye pour nga mën koo moytandiku ndax boo mënta xàmmee lu bon ak lu baax di nga tàbbi ci lu bon bi ci njëkk ci asbaab yi nga xamante ni ay asbaabu ziyaada la pour wan ne la ndakate ziyaadatul iman bul ko jël rek nga yemale ko ci ay jëf wala wàññeeku euh, ngëm yàlla nga jël ko rek yemale ko ci ay jëf boo ko yemalee ci jëf yi nga xam ne mooy jëfu cër yi loolu déggin bu gàtt la déggin bu gàtt la ci wàllu yokku ngëm ak wàññeeku ngëm moo tax léeg-léeg ngay gis mbokk yi kenn euh, xëy na loolu mën nañu wax ne alaama la la chaque ne mën na nekk alaama sa benn mbokk di nga jekk naan mbokk bi temps yi dafa daif bat boobu dañu gis ne lu lu lu courant la lu ñu jëfandikoo dafa daif mais fil xaalib mbokk bi dafa daif mooy ngëm yàllam dafa wàññeeku fii ko mbokk yi di utiliser mooy nga seetlu ne am na jëf yu mu daan jëf ci loo daan gis nii nga seetlu ne xëy na wàññeeku na ci wàññeeku na ci mais gis mbokk boo xam ne dafa dëddu xam du jàng du gëstu xam-xam du yittewoo xam-xam di jàng pour di gën a xam diineem nga ne dafa daif loolu fil ghalib dañ ko faral di wax alors que sabab bi nga xam ne mooy sabab bi gën a màgg ci asbaab yi nga xam ne mën na yokk ngam yàlla nekk mooy xam-xam xam boo xam ne xam-xam bu wér la xam-xam bu am njariñ la li ñu tuddee al ilmu naafi al ilm an naafi mooy xam-xam boo xam ne xam-xam bu am njariñ la yalla subhanahu wa taala bi wax naan shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika ñan la ci wa ulul ilm qaiman bil qist yàlla subhanahu wa bi mu seedalee boppam ak wéetam te loolu mooy li am mu seedeel ko boppam subhanahu wa taala ji jiitu ci teg ci ay malaikaam ñan la ci teg ñetteel bi mooy ulul ilm borom xam-xam yi yi xam ak ak réer yamul ku xam ak ku xamul yamuñu ngëm yàlla ki xam ki nga xam ne dafa teg ngëm yàllaam ci xam ak ngëm yàlla koo xam dafa teg ngëm yàllaam ci dëggal rek yamuñu parce que ñaari ñaari maqaama yooyu yamul mooy maqaamatu bi nga xam ne maqaamatul maarifa ak maqaamatu tasdiq bokkul ki nga xam ne dañ ko gaaral l'islam ci kaw nii ay usulam ak ay furuam mu dëggal ko nii d'une manière gëm ko bokkul ak ki nga xam ne da koo xam xamin bu wér nga xam ne dëggalam ci kaw xam-xam la tegu ñoom ñaar bokkuñu ñoom ñaar seen i dëggal bokkul ki dëggalam dafa tegu ci firnde loo xam ne burhan la ci am kii dëggalam dafa tegu ci dëggal gu mu dëggal nii rek parce que am na mbir yu mu gis yoo xam ne jàpp na ne lii dëgg la ñaari xam-xam yooyu yemul moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ne wal ya'lam alladina utul ilma annahu alxaqu min rabbik fa yuminu bi fa taxbita lahu qulubuhum yàlla subhanahu wa taala bi muy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci lim ko jox daf ne ko bokk na ci jubluwaay itam ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ñu am xam-xam ñu xam ne lii nga indi dëgg la ju jóge ci sa borom ñii xam loolu ne lii mu la jox dëgg la bu jóge seen borom wala bu jógee ci sa borom nee na mooy ñi nga xam ne utul ilm yàlla da leen jox xam-xam da leen baaxi mooy ñoom ñoo mën a am xam-xam boo dinañ ci sukkandiku pour li nga indi ñu xam ne lii dëgg bu jóge ci sa borom wa yara alladina utul ilma alladi unzila ilayka huwa alxaq min rabbik ñi nga xamante ni ñoom la yàlla subhana taala baaxee ci xam ñoom ñoo mën a am ay base yoo xam ne ci lañuy sukkandiku ngir gis ne lii la sa borom subhanahu wa jox dëgg la mu ne bu ko defee ñu daal koy gëm fa yuminu bihi ñu daal di koy gëm fa taxbita lahu qulubuhum bu ko defee seen i xol daal di nooy ci ngëm googu nga xamante ni gëm nañ ko ko ci ngëm googu nga xam ne gëm nañ ko ko kon ñoom loolu ñuy am muy njariñ boobu ñuy am ci gëm mbir yooyu ci kaw tegu ci xam moo tax mu ne fa yuminu bihi moo ne seen ngëm googu ñuy gëm yokkuk la ci ñi nga xamante ne amuñu ngëm googu ndax ñoom ba ñu amee xam-xam mun a sukkandiku ci xam-xam bi xam ne li yàlla subhanahu wa taala jox yonentam bi alayhi salatu wasalam dëgg la ñu gëmee ko noonu fa yuminu bihi imaan boobu mu leen saxal moo gën a mat keneen koo xamante ni amul ñoom martaba bi ñu am ci xam-xam muy xamewuñ ko noonu moo tax bi mu waxee ne wal yaalama alladina utul ilma annahu alxaqu min rabbik daf ne fa yuminu bihi ñu daal di koy gëm maanaam gëm bi ñu gëm résultat wu seen xam-xam bi ñu xam ne li nga indi dëgg la kon en fonction nit ki ni mu xamee dëgguk mbir mi foofu la ngëmam di toll fa yuminu bi iman boobu xaas la moo gën a ma imaanu ñi nga xam ni aguñu foofu ci xam xamee noonu mbir mi ne noonu la nekkee dëgg seen ngëm àggul foofu kon loolu day wane ne kon par rapport ak fi xam bi toll foofu la ngëm ji di toll kon xam-xam boobu baaxif qawi la ci li nga xam ne moom tuddee ziyadatul mooy lu lu dëgër la ci lu yokk ngëm xam-xam boobu mooy xam-xam bi nga xam ne moom la imaam euh, ibnu rajab alhanbali di wax ci fadlu ilmi salaf ala alxalaf dafay wax ne fal ilmu naafiu min hadihi alulum min hadihi al-ulum kulluha mu ne mooy dabt nusus al-kitab wa sunna wa fahmu maaniha wa taqayudu fi dhalika bil-ma'thur an as-sahabati wa at-tabi'in wa tabi'ihim fi maani al-quran wal hadith Ibn Rajab dafay wax ne xam-xam boobu nga xam ne mooy yokk ngëm yàlla nit ki xam-xam boobu nga xam ne mooy jariñ nit ki ci ngëm yàllaam mooy waral ci nit ki mu gëm yàlla ngëm yàllaam yokku mu ne mooy xam-xam bi nga xam ne mooy bi lay may pour nga mën a peeg mën a saytu teg si alquran yi ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ak comprendre maanaa bañ ca namm comprendre maanaa ba nga xam ni moom lañ namm ci texte yooyu mu ne te nga tënku ci la nga xamante ni loolu lañ jëlee ci saxaaba yonent bi alayhi salatu wasalaam ak ña jànge ci ñoom ñu leen tuddee ak ñu leen tuddee ak taabiin ak ñi jànge ci ñoom ñu leen tuddee tuddee taabii wala atbaau taabiin mu ne déggin bañ am ci quran ak ci sunna mu ne nga tënku ci loolu mu ne xam-xam boobu lañ ci namm mu ne wa fi ma warada anhum min alkalaami fi masaili alxalaali walxaram walzuhdi walraqaiq walmaarif wa gayru dalika walijtihaadu ala tamyizi saxixihi min saqimihi awalan hada shay mu ne suma alijtihaadu ala alwuqufi fi maanihi wa tafahumihi thaniya mu ne ak itam di delluwaat ci ñoom ci li nga xamante ni wax nañ ko ci ay wax ci ay masail ci wàlli xam-xam moo xam ci li dagan ak li xaraam wala ci dëddu àdduna wala ci li nga xamante ni bi mooy may nit ci pour mu am ragal yàlla mooy tëndiku lu bari ci wàllu àdduna ak gën a taxaw ci góorgóorlu ci diine ñu ko tuddee ar raqaiq wal maarif mooy li ñuy wax pas-pasu aqida muy lu mel ne al asma wa sifaat mën nga delluwaat ci seeni wax yi nga xam ne tuxal nañ ko jële ko ci ñoom ci buntu yooyu mën nga tënku ci mu ne ak leneen lu dul ci ay masail yoo xamante ni bi rot na jóge ci ñoom mu ne nga delluwaat ci saxaaba yooyu nga tënku ci seen wax yooyu mu ne ak itam góorlu ci di xam loolu ñu tuxal jële ko ci ñoom la ca wér ak la ca wérul mu ne loolu mooy li njëkk mu ne ñaareel bi mooy nga fexe xam lan lañ ci namm loolu waxin bu saw la góor gi di wax fii mooy dafay wax ne xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam bi jariñ li ci njëkk mooy tënku ak comprendre nusuusul kitaab wa sunna loolu ma la al asl mooy alquran ak sunna nit ki jàng ko dégg ko tënku ci mu ne boo koy jàng ko dégg di ci tënku lan ngay dimbali ko mu ne al ma'thur an as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim mu ne mooy xam-xam bi ñu jëlee wax ji ñu jëlee ci saxaaba yi ak ñi jàngee ci ñoom ak ñi jàngee ci ñooña li nga xamante ni wax nañ ko ci abwaabul ilm ci ay xam-xam mu ne nga tënku ci loolu mu ne lan nga war a def bu boobaa mu ne li nga war a def mooy gëstu wax yooyu ndax wér na bu wéree ba noppi nga gëstu tamit ndax ni nga ko déggee noonu la wala déet mooy at tafahum mooy nga dégg ko déggeen bu wér kon da ngay dafay sax ba pare bu fekkente ni dal bi dalil bi sax na muy preuve bi sax na ginnaaw loolu nga lijjanti nag compréhension bi muy interprétation bi naka lañ koy déggee xam-xam boobu euh, xam-xam la boo xamante ni dafay nekk jumtuwaay mais du nekk jubluwaay muy xam-xam bi nga xam ne mooy yokk ngëm yàlla nit ki nekkul hadaf li zaatihi wasila la xam-xam moo tax borom bokk na ci li ñuy wax ci adabu talab ilm mooy nit ki an la yajal al ilm hadafan li zaatihi mooy nit ki bañ a jël xam def ko mu nekk jubluwaay xam-xam nekkul jubluwaay ngir moom mais dafa nekk jubluwaay ngir keneen mooy da nga koy jublu ngir keneen da koy jublu pour mu yóbbu la ci ngërëmu yàlla subhanahu wa taala xam-xam nekkul jubluwaay pour moom nga am ko rek mu des ci yow nga am xam-xam bi xam-xam boobu du jur du am njariñ xam-xam bi lay jariñ mooy xam-xam bi nga xam na nga koy jàng ngir mu def njariñam njariñam mooy ngir nga amee ci ngërëmu yàlla subhanahu wa taala xam-xam boobu mooy bi lay jariñ jëf xam-xam boobu mooy xam-xam bi lay jariñ jëf waaye xam ni rek ci sa xel ak ci sa xol nga xam naa loolu nekkul jubluwaay moo tax cheikh lislam taymi rahimahullah di wax ne al ilmu ilmaani aw daf ne kama yu yuqal inna al ilmu ilmaani daf koy xikaaya comme xadis la meeru xadis boo xam ne saabit moo tax mu ne kama yuqal mu ne al ilmu ilmaani ilmun fi l qalb wa ilmun fi lisaan nekkul xadis boo xam thabit an rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais athar la boo xamante ni yustafaadu minhu wa yustanasu bihi mu ne xam-xam ñaari xaaju xam-xam la xam-xam boo xam dafa nekk ci xolu nit ki xam-xam boo xam dafay nekk ci xolu nit ki ak xam-xam boo xam ne ci làmmiñu nit ki la fay lay yem mu ne fa ilmul qalbi huwa al ilmu naafi xam-xam bi nga xam ne dafa nekk ci xolu nit ki mooy xam-xam bi koy jariñ mu ne wa ilmul lisaani huwa xujjatullahi ala ibadihi mu ne xam-xam boo xam ne rek la yem mooy xam-xam bi nga xam ni dafay taxawal atte yàlla layu yàlla ci sa kaw dafay taxawal layu yàlla ci sa kaw Aïcha radiyallahu anha benn waay mas na ñëw laaj ko benn masala mu wax ko ci kooku dem ba sa su bëgg mu ñëwaat di ko laajaat mu ne ko ndax li nga ma laajoon démb jëfe nga ko mu ne ko déedéet mu ne ko idhab la tastakthir xujaj allahi alayka la tastakthir xujaj allahi alayka mu ne ko demal bul baril ay layu yàlla ci sa kaw ndax loo xam rek layu yàlla bu tegu ci sa kaw la abdullah ibn mas'ud daf daan wax naan innakum fi zamanin kathirun fuqahauhu qalilun xutabaauhu kathirun mutuuhu qalilun sailuhu wa sayati alaykum zamanun kathirun xutabaauhu qalilun fuqahauhu qalilun mutuuhu kathirun sailuhu abdullah ibn mas'ud dafay wax ne gaa yi mi mu daan àndal ñuy tuddee asxaabu abdullah ibn mas'ud ñu nekkoon ak moom ci kuufa daf leen daan wax naan da ngeen nekk ci jamono joo xam ne ñi xam dañoo bari ñi wax dañoo néew ñii laaj dañoo néew ñi xam dañoo bari yàlla jox xam-xam dañoo bari ñi koy laajte di ko dem di ko jëli ci ñoom dañoo néew loolu fexlan amoon na ci seen jamono moo tax kenn ci ñoom daan na toog ak ay asxaabam naan leen laaj leen ma laaj leen ma fexlan hada thabit ku mel ci jaamiu ngi ciy indi buntu yu mel noonu mooy yàlla baaxee na am xam-xam toog ak ay nit leen ca jëriñ mu leen ma ci nàngam ñu laaj ko mu wax leen loolu fexlan usira an salaf noonu mais loolu li ci nit ki di jublu pas pour ak wane xam-xamam mais pour jëriñ ñi mu mu ne da ngeen nekk ci jamono joo xam ne mu ne ñiy wax dañoo néew ñi xam dañoo bari ñi xam ñi yàlla jox xam-xam dañoo bari ñi koy laajte di ko gëstu di ko jàng dañoo néew mu ne da dem ba àgg ci jamono joo xamante ni ñiy wax dañuy bari ñi xam dañuy néew ñiy wax dañuy bari ñi xam dañuy néew mu ne ba pare ñiy laajte xam-xam di ko gëstu dañuy bari waaye ñi ko yàlla baaxee ñu yor ko ñu néew lañ Cheikh Lislam ne fal fiqhu ne borom xam-xam bi nga xam ne dafa jàng xam-xam fas ko ci xolam muy xam-xam bu wér mu ne yemut ak waxkat bi nga xam ne ab xatib la day wax rek day def ay discours rek di wax nii li muy wax lépp culture générale la bu nekk ci làmmiñam mu ne waqad yaxsulu lil qalbi min al fiqhi wal ilmi umurun azima wala yakunu saxibuhu muxaatiban bihi li gayrihi aw bi dalika li gayrihi waqad waqad yuxaatibu gayrahu bi umurin kathira min maarifi alqulubi wa axwaaliha wa huwa aarin an dalika faarigin minhu Cheikhul Islam Taymi rahimahullah di wax ne borom xam-xam bi nga xam ne moom la yàlla baaxe mu jàng xam-xam euh, fas ko ci xolam mu ne yemut ak waxkat bi nga xam ne day wax nii li ñu tuddee théoricien mu ne nit mën na xam lu bari ci ay xam-xam yoo xam day nekk ci xolam muy wax ak nit ci xam-xam te du ko wax loolu yépp du ko wax loolu yépp da koy wax lenn rek xam na lu bari lu bari ci lim xam xam na ne ki muy waxal soxlaw ko mu wax ak moom ci lim soxla lu ci bari wax moo tax ñu doon wax naan xaatibu naasa bi ma yaarifuun xaatibu naasa bi ma yaarifuun mooy nit ku nekk da ngay wax moom solo degré am mais doo wax ak moom selon yow sa degré ndax loolu ku bëgg a jariñ nit doo ko def ku bëgg a yëm nit moom mooy def loolu mu ne ba noppi tamit nit mën na di wax ak nit ci lu bari ci ay xam-xam xam ne xam-xam yi xol la ak xam xamante ni ki ko war a ko wax ba kooku yéemu ci boobu nekkul ci xolam moom kon loolu moom moo tax mu ne xam-xam ñaari xaaju xam-xam la xam-xam buy nekk ci làmmiñ boo xam nit ki mën na ko wax ni loolu mu gëddee ko mu rafet mais nekkul ci xolam ak xam-xam boo xam day nekk ci xolu nit ki di ko jariñ xam-xam biy jariñ di yokk ngëm yàlla nit ki mooy xam-xam bi nekk ci xol xam-xam bi nga xam nit ki da koy xam-xam bi nga xam nit da koy fas ci xolam mu amal ko njariñ xam-xam boobu boo ko seetee ay xeeti xam-xam yu bari la bi ci njëkk mooy xam-xam bi nga xam ne dafa sukkandiku ci gëstu téere yàlla bi subhanahu wa taala jàng ko xam ko xam ne ci yàlla subhanahu wa taala digle ci ay ndigal nga taxaw ci ak lim ci tere ci ay mbir nga bàyyi ko lim ci santaane ñu war a fas nga ko li ci tere ci ay mbir nga sori ko xam-xam boobu mooy xam-xam bi gën a am njariñ mooy xam-xamu quran xam-xam boobu mooy xam-xam bi faj xol yi mooy li yàlla subhanahu wa taala doon wax naan wa shifaun lima fi sudur mooy xam-xam bi nga xam ne dafay faj li nekk ci xol yi ndax xol dafay dund comme ni jëmm di dundee xol dafay feebar comme ni jëmm di feebaree xol li koy alimenté di ko di ko di ko li ñu tuddee xuutul qalb gidaul qalb mooy li nga xam ne moom lay dundee aliment aliment bi muy dundee loolu moom mooy nuur bi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala jox yonte bi alayhi salaam mu xam-xam boobu mooy xam-xam a kawee ci xam-xam nga xam-xam bi leen di jural ñu am ragal yàlla mu ne ñooñu xam-xam boobu am mooy xam-xam bi tax ñuy wax al ulama foofu ñooñu fi'lan ñooy al ulama ñooy borom xam-xam yi mu ne keneen ku dul ñoom kon doo borom xam-xam keneen ku dul ñoom doo borom xam-xam loolu li muy tekki mooy al-ishraaku fi l-ism laa yaani aw laa yadullu ala al-ishraak fi fi l-haqiiqati wal maana moo ne ñaari nit mën nañ taxaw ñoom ñaar ñëpp tuddee leen aalim kii aalim la kii aalim la mais kii dafa am aalim boo xamante ne yujibu lahu al-xashya wa taqwa wal iman kii am euh, ilm boo xamante ne yadur wala yanfa ñoom ñaar dañoo am xam-xam kii xam-xamam dafay waral ci moom ngëm yàlla ak ragal yàlla kii xam-xam bi mu am dafay nekk xam-xam boo xamante ne jariñu ko mais da koy lor bu boobaa dañ naan kii mooy alaalim moom la yàlla subhanahu wa taala jàppee borom xam-xam moo tax bi mu yaxsha allah min ibadihi ni al ulama neewul ulama alif beeg lam bi mais ne al ulama nga xam ne ñoo am xam-xam bi tax ñuy wax xam-xam ñooñu ñooy ragal yàlla subhanahu wa taala ñoom la seen xam-xam di jural ragal yàlla subhanahu wa taala moo tax alquran boobu jàng ko yàlla subhanahu wa taala doon na jox naan kitaabun anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayatihi wa li yatadakkara ulul yàlla subhanahu wa taala moo wàcce téere bi ci yonentam bi alayhi salatu wasalaam mu barkeel nekk lu bari ay njariñ ci anam yu bari yoo xam dafay feeñ ci nit ki ngir ñu settantal ay aayam moo tax alquran bokk na ci jubluwaay yi tax mu yu gën a gën a tax mu wàcc mooy nit ñi nit ñi jàng ko settantal ay aayam afala yatadabbaruuna alquran walaw kaana min indi gayri illahi la wajadu fihi ixtilafan kathira afala yatadabbaruuna alquran quran yàlla subhanahu wa taala daf ko wàcce ngir ñu jàng ko seetal settantal ay aayaatam naka noonu yonte bi alayhi salatu wasalaam daan na ñaan ci ay ñaanam muy tawassul ci yàlla subhanahu wa taala ci ay turam ak ay melokaanam ci ñaan boo xam ñaan bu yaatu la allahuma inni asaluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min xalqik aw istatarta bihi fi ilmi alxaybi indak an tajcal alquran alazima rabia qulubina rabia qulubina ñaan bu màgg boo xamante ne bi tur bu mu xam ak bu mu xamul ci yàlla yi ñaan na ko ci li nga xam ne moom lay waaj ñaan tur bu mu xam ak bu mu xamul asaluka bi kulli ismin huwa lak moo xam xam naa ko wala xaw ma ko bépp tur boo xam ne am nga ko rek maa ngi lay ña maa ngi la ci maa ngi ciy sukkandiku di la ñaan li mu koy ñaan lan la mu ne ko a nekk comme boo xam ne dafay naatal suñu xol yi bu ko defee mu sax gàncax alquran moom mooy naatal xolu nit ki saxal ci gàncax yi nga xamante ne bii moom mooy yokk ngëm yàllam bu ko defee mu feeñ ci biti mu feeñ ci biti moo tax yàlla subhanahu wa taala doon naan alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayiba asluha thabitun faruha fi sama tuuti ukulaha kulla xinin bi idni rabbiha day ne asl bi nga xamante ni mooy mooy sax ci xolu nit ki muy aslul bu saxee ci xolu nit ki sax xol boo saxin boo xamante ni bu wér la nit ki euh, suuxat ko ba mu sax saxin bu dëgër dafay daal di meññ gàncax gàncax googu mooy liy meññee fruit yi jóge ci ngëm yàlla gi ci ay waxam ak ay jëfam mais lépp ci xol bi lay sax loolu la koy suuxat amu ci lu gën a doole lu gën a am doole alquran moo tax yonente bi ne an tajal alqurana rabia qulubina alxasan albasri daf doon wax ci lu bëri nit ñi ci nit ñi di foog ci yaakaar ne bu ñu waxee ci jariñu ci alquran ak mu yokk sa ngëm yàlla mooy rek yittewoo xuruf alquran alxuruf bàyyi li ñu tuddee almaani wal wal wal wal wal xudud almaani wal xudud mooy sens yi nga xamante ni moom la xuruf yi yanu ak la nga xamante ni moom la teg ci sa kanam ci ay barrière ne la bul ko dépassé alquran loolu mooy jubluwaay bi xuruf yi lettres yi nga xamante ni moom ngay jàng ay jumtuwaay la ay moyen la pour àgg ci maanaa bi alquran li tax mu wàcc mooy maanaa bi mais xuruf yi moyen la pour nga àgg ci maanaa bi kon boo taxawalee xuruf yi maanaa bi nga neenal ko loolu amul benn njariñ loolu amul benn njariñ moo tax alxasan albasri doon wax naan ama wallahi maa huwa bi xifdi xurufihi wa idaati xuduudi mu ne jëfe alquran ak taxawal alquran nekkul ci di taxawal xurufu alquran rek ci di ko jàng ni ci kaw ba noppi di neenal ak di sànq ay xuduudam mooy atte yi nga xam ne teg na ko ci sa kanam nga war cee tënku mu ne xatta inna ahadahum la yaqul laqad qara'tu alqur'ana kulla fama asqattu minhu xarfan wa qad wallahi asqatahu kulla ma yura lahu alqur'anu fi xuluqin wala amal xatta inna ahadahum la yaqul inni la aqra'u surata fi nafas wallahi ma haulaai bilqura wala bilulama wala alxukama wala alwaraca متى كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف الحسن البصري dafay wax ne taxawal alquran nekkul rek ci taxawal xuruuf yi sànq ay atteem mu ne dafa dem ba àgg ci ba da ngay gis ñenn ci ñoom dañuy wax naan wallahi jàng naa alquran yépp ba mu jeex amul benn xarf bu ma ci rëcc lépp jàng naa ko min alfatiha ila annas mu ne te moom boo ko seetloo wallahi mu ne al alquran yépp da koo neenal amul lu mu ci taxawal jàng boobu mu ko jàng ba tax mu naan taxawal na alquran lépp mu loolu warul ci moom waralul ci moom mu taxawal alquran mu ne boo ko seetloo alquran yépp da koo neenal mu ne dee su koo gisal alquran moo xam ci jikko la wala ci jëf mu ne boo koy natt alquran ci jëfam wala ci jikkoom amul jeexital booy gis ci alquran jooju mu naan taxawal na ko ci jikkoom wala ci ay jëfam mu ne doo ko gis kon kooku naka la mën a waxee ne taxawal na alquran yépp mu ne dafa dem ba ñenn si ñoom dañuy wax naan damay jàng ab saar ci benn noyyi ci benn yi loolu mooy su ma tàmbalee bismillahi rahmaani rahim euh, alhamdulilahi rabil alamin masalan suratul fatiha am na benn xadis bu ñu ci ne xadis mawdu boo xam dañ ne ku jàng suratul fatiha ci benn noyyi ñu jéggal la say bàkkaar yu njëkk ak mujj mooy dangay tàmbali doo doo noyyi ba jeexal gayril maxdubi alayhim wala dallin maanaam léegi loolu mooy ban façon jàng liskal kuy jàng pour xelu ak pour settantal dina jàng-jàng boobu jàng boo xam boo tàngalee boo tàmbalee bismillah rahmaan rahim ci tàmbali saar bi doo noyyi ba ba ngay daaneel ci ci bopp saar ba ca des mel ne kuy kuy kuy maadiri euh, yaani mu ne xatta in ahadahum la yaqul inni la aqra'u surata fi nafas mu ne wallahi ma haulaay bil quran mu ne bu ñuy wax boroomi xam-xam yi jàng alquran borom xam-xam yi jeexitalu ci alquran borom xam-xam yi jëfee mu ne ñii taxul ñuy wax mu ne ñii taxul ñuy wax mu ne kañ la borom xam-xam yi mel nii mu ne borom xam yi jàng alquran di ko jëfee mosuñu mel nii mu ne kon lii ku ko mel leneen nga waaye doo borom xam-xam boo xam ne da ngay jàng alxuraan di ko jëfe mu ne yàlla bu bëril yàlla bu yàlla bëril sax ci ni ñi ñu mel nii yàlla bu yàlla bëril ci nit ñi ñu mel nii ibnul qayim rahimahullah dafay wax euh, ci kitaabu alfawaid benn qaayida règle boo xam ne bu am solo la ci ni ki bu fekkee dafa bëgg a jariñ ci alquran mu ne ida aradta alintifaa bilquran fajmac qalbaka inda tilawatihi wa samaaci wa alqi samcaka waxdur xudura man yuxaatibuhu bihi man takallama bihi subhana wala man takallama subhanahu minhu ilayhi alxaafid ibnu alqayim dafa fil fawaid ne bu fekkee da nga bëgg a jariñ ci alquran mu ne boo koy dégg wala nga koy jàng mu ne na nga dajale sa xol bul tàqale sa xol mooy bul nekk di xalaat nangam di xalaat lii mu ne dajaleel sa xol nga fexe sa xol teew bul jël mbir yu bari di ko def ci sa xol mu ne ba pare na nga teew teewaayu koo xamante ni ki ko wàcce moom borom bi subhanahu wa taala yow la ciy waxal directement ci moom la jógee di jëm ci yow muy wax ak yow ki nga xamante ne bii ci moom lañ ko wàcc mu ne na nga teew teewaayu comme yàlla subhanahu wa dafay wax ak yow di jóge ci moom di ñëw ci yow mu ne teewal teewaay boobu nga fexe dajale sa xol te bul tàqale sa xol mooy bul tàqale sa xel lu ne nga koy xalaat mu ne loolu boo ko defee insha allah bu ñuy jàng alquran wala nga koy dégg maanaam booy jàng alquran wala nga koy dégg di nga jariñu ci alquran boobu loolu liñ ci nam yépp mooy tadabbur wa taaqulul quran mooy di settantal ak di xelu li nga xamante ne moom la alquran ji di wax ndax loolu mooy jubluwaay bi gën a màgg ci alquran loolu bu fekkente ni nit ki def na ko góorgóorlu ci loolu mu xel xam ko mu taxaw ci kémtalaay kàttanam loolu moom mooy li nga xam ne mooy yokk ngëm yàllaam loolu mooy li yokk ngëm yàllaam di fóot xolam bi ci des ci yi nga xam ne ci gën a solo la ci yoo xam ne day yokk ngëm yàlla nit ki mooy maarifatu asmaillahi alxusna wa sifatihi alula mooy xam yàlla subhanahu wa taala xam yàlla pa tëdd nelaw di gént naan xam naa yàlla gis naa yàlla mais xam yàlla bi nga xamante ni mooy xam yàlla ci ay melokaan yi melal boppam ak ay turam yi nga xamante ni tuddee na ko boppam nga xamee ko ci noonu subhanahu wa taala nit ki lu mu gën yàlla ci melokaan yooyu gën ko xam ci tur yooyu xamin boo xam ne xam bu am njariñ la mu gën koo jëriñ ci ngëm yàlla mooy xam bi nga xam ne moo tax ñuy wax xam ndax yàlla subhanahu daf bi mu waxee ne waalamu anna allah yaalamu ma fi mu waxee ne xam leen ne yàlla subhanahu wa taala xam leen xam ne li ngeen di xalaat li nekk ci yéen li ngeen di def di ko nëbb daf ne kon moytu leen ko mooy boo xamee xam bi daf la war a jural dara xam bi ngay xam yàlla subhanahu wa taala ci ne moom dafay gis dafay dégg dafa xam lépp lu nëbbu ak lu feeñ loolu dafa war a jural nit ki muraqabatullah mooy di sàmm gis boobu la yàlla di gis dégg boobu mu lay dégg ak xam boobu mu xam sa lépp loolu mooy xam bi nga xam ne nit ki ko xamee melokaanu yàlla yooyu dina ko jariñ xam boobu lu ci nit ki di gën a góorgóorlu ci di xam màggaayu yàlla subhanahu wa taala xam ay mbiram loolu dina waral ci moom muy gën a am gëm yàlla subhanahu wa goo xamante ni du ci déngi déngi benn yoon moo tax yàlla subhanahu wa taala bi mu waxee ne innama yaxsha allah min ibadihi wax ne ulama yooyu xam-xam bi yàlla subhanahu wa taala melal bi ci gën a martaba bi ci gën a kawe ci xam-xam boobu leen waral ñu am xasiyatullah mooy xam yàlla subhanahu wa taala xam yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla loo ko gën a xam gën koo ragal moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam dafa leen wax saxaaba yi naan ala inni axshaakum lillah wa alamukum billah yonente bi alayhi salatu wasallam dafa daan wax saxaaba yi ne maa leen gën a ragal yàlla maa leen gën a xam yàlla nit ki lu mu a xam yàlla gën koo màggal gan koo ragal waaye lu mu gën a réere boromam gën koo ñeme gën koo ñeme xam yàlla subhanahu wa dafay waral ci mu gën a am ngëm yàlla subhanahu wa gën a am ragal ak yeneen yi nga xam ne loolu tuddee amalul iman muy jëfi day gën a dëgër ci moom ci lu mel ne ragal ak ci bëgg yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla loo gën a xam gën a xam ay ay ay ak màggaayam gën a xam ay melokaanam loolu day gën a waral ci nga koy gën a bëgg ak di ko gën a yaakaar ndax loo gën a xam ay xéewalam gën a xam kattanam gën a xam mën-mënam ne amul ab dayoo loolu dina waral nga gën a am raja loolu ñuy tuddee alxawf wal ma mahabba wal raja nga xam ne mooy jëf yi gën a màgg ci jëfi xol nit ki dëgëraayam ci ci mbir yooyu day tolloog dëgëraayam ci xam yàlla subhanahu wa taala ci melokaanam yi ak ci ay ay turam buntu boobu buntu bu màgg la bunt bu kawe la ci bu ñuy xam yàlla léegi nag dem na ba xam yàlla dañ ko jëfandikoo ci jamono ji ñu dund ci anam bokk dafa dem ba nit ki sax da koy ragal a wax nit ki day ragal a wax sax ne xam yàlla baatu xam yàlla da koy ragal alors baat boobu baat bu wér la baat bu wér la mais ni ñi ñoo koy jëfandikoo ci anam boo xam ne ay xuraafaat ak ay subuhaat ay xusaar balaat lañ ci lañ ciy namm ba dafay dem ba léegi nit ki bu ne xam yàlla automatiquement nit ñi dañuy yaakaar xam yàlla bi muy wax mooy xam yàlla bi nga xam ne dafa dafa jàdd yoon beneen bi ci des yi nga xam ne dina gën a yokk nit ki ci ngëm yàlla mooy xam axwaalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy ak taamul fi sirati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy di settantalaat dundu yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngaat man huwa rasulullah kan mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam bi ko yàlla di wax ne wa innaka la ala xuluqin azim yàlla subhanahu wa taala di ko tagg nga xam ci lu mu nekkoon ba yàlla di ko tagg ci loolu melokaan yi mu meloon anam bi mu nekkoon nga xam ko jàng ko xamin boo xamante ni xam bu leer la loo ko gën a xam moom sallallahu alayhi wa sallam di gën a am dogu ci li nga xam ne indi na ko loo ko gën a xam di gën a am dogu ci li mu indi ne dëgg la di gën a am dogu ci li mu indi ne dëgg la kon xam yonente bi alayhi salatu wasalam xamin boo xam ne xamin bu wér la ci jàng siiram jàng dundam nit ki dina ci jariñ ci anam yu bari ci wàllu war koo mën a roy ak yooyu mais côté bi ci gën a am solo mooy mu yokk ngëm yàlla alors que ñu bëri dañu yaakaar siira boo koy jàng li nga ci yittewoo rek mooy jaanibu al iqtida fi zahir mooy roy bi nga koy roy ci biti ci ni mu daan solo ni mu daan jullee ni loolu baax na fi'lan loolu ci jëf yi feeñ ci biti la mais am na lu nekk ci biir lu gën a am solo mooy boo ko xoolee xool firnde yi daje ci moom yépp dina la gën a indil beneen yaqin buy gën a dëgëral sa xol ci dëgguk li nga xam ne salawatullahi wasalaamuhu alayhi indi na ko indi na ko sub moo tax ibnu saad yi doon wax naan wa min turuqi mujibat al iman wa asbaabihi maarifatu nabii sallallahu alayhi wa sallam wa maarifatu ma huwa alayhi aw ma kaana alayhi min al axlaaq al aaliya wal awsaaf al kaamila fa inna man arafahu xaq al maarifa lam yartab fi sidqihi aw fi sidqi ma jaa bihi min al kitaabi wa sunna wa diin al xaq كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة للإيمان ممن لم يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به التوضيح والبيان الشيخ السعدي رحمه الله dafay wax ne bokk na ci yi nga xam ne ñoo gën a mën a waral nit ki ngëm yàlla am yokk mooy muy jàng ak di gëstu dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak di xam la nga xam ne nekkoon na ca ci ay jikko yoo xam ne jikko yu kawe la ak ay melokaan yoo xam ne melokaan yu mat la mu ne loolu bokk na ci yi gën a mottali ak yi gën a waral la nit ki yàlla yàllaam yokk mu ne koo xamante ne xam na yonente bi alayhi salatu wasalaam dëgg-dëgg xam ci jàng ko xam ko mu ne kooku du sikki sàkk ci dëggoog li nga xam ne indi na ko ci alquran ak sunna doo sikki sàkk ci ne dëgg la mu ne comme li yàlla subhanahu wa taala wax ne am lam yaarifu rasulahu rasulahum fa hum lahu munkirun ndax ñoom dañoo xamul seenub yonent ba tax ñu weddi ko xamuñu seenub yonent bu li nga xamante ni noonu la mel ci ay melokaan yi ko yàlla subhanahu wa taala defal loolu dañ koo xamul ndax loolu dafa am ci ñoom li tax yàlla subhanahu wa taala posé question boobu mooy weddi gi ñu ko weddi ndax buñ ko xamoon xaqiqatan dinañ ko gëm buñ ko xamoon xaqiqatan dinañ ko gëm moo tax ñu bari si ñoom weddi gi ñu weddi woon weddi la ndax xam nañ ci yonente bi alayhi salatu wasalam lu war a mën a tax ñu xam ne li mu indi dëgg la moo tax ñenn si ñoom doon wax ne xam naa ne li wax dëgg xam naa ne fenkat mais dama laa gëm loolu mooy damaa bañ dama lànk loolu lañ tuddee kufru iba mooy bañ lànk loolu ñu bari ci kuffaaru Quraysh yi dundoon ak yonente bi alayhi salatu salaam loolu moo doon sabab bi taxoon ñu weddi mais wa illaa xam gi ñu ko xam rek waraloon na ci ñoom ñu gëm ko waraloon na ci ñoom ñu gëm ko moo tax mu ne aaya boobu li muy tekki mooy moom yonente bi alayhi salatu salaam xam ko dafay waral ci nit ki mu daal di gëm ci saasa bu fekkente ni gëmul woon bu fekkente ni gëmoon na day yokk ngëmam kon maanaam xam ko moom sallallahu alayhi wa sallam day waral ci ki gëmul woon mu gëm waaye day waral ci ki amoon ngëm tamit ngëmam yokk mu gën a gëm li nga xamante ni moom la indi kon gëstu ak jàng li nga xam ne mooy siratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko te amul di ko xool ci anam bi mu nekkoon ak ci jikko yi mu yoroon ak ci ni daan dundee ak li ko yàlla subhanahu wa taala jox ci anam bi mu ñëwee dina gën a bokk ci liy uh, indi ay firnde ci ne yonent dëgg la li mu indi dëgg la boo seetloo ne moom salawatullahi wasalaamu alayhi kaana ummiyan la yaqra wala yaktub dafa nekkoon koo xamante ni illettré la du bind du jàng du bind du jàng diine yi nga xam ne ñoo jàlloon ay diine la yoo xam ne dañ koo bind nit ki bu bëggee xam li ca nekk foog mu jàng xam ko loolu yonent bi alayhi salatu wasallam mënu ko woon def parce que daawul bind daawul jàng nga ni kon dafa dajee koo xam ne da koo xam kooku jàngal ko yonent bi alayhi salatu wasallam jaxasoowul ak ahlul kitab bi mu nekkee màkk laata yàlla di waxi ci moom jaxasoowul ak ñoom benn yoon la ñettali ci dundam ne dem na yaman taxawu fa dafa dem daal di ñëwaat kon jaxal soowul ak ñoom ba mën a jàng ci ñoom loo xam ne mën na cee sukkandiku ngir wax ne dañ ko wax yu te waxu wuñ ko mu toog ba jamono mu jékki-jékki indi mbir boo xamante ni ay baayam ay maamam xamuñu ko musuñu koo dégg ma sami'na bi hada fi abaina al awwalin suñu koo dégg xamuñu ko ci seeni i baay xamuñu ko ci seen maam lu bees la loolu bi mu ko indee mu dëkku leen ci ne leen bu fekkente ni ñoom mën nañu indi lu ñu mel wala ñiy ñëwaat seen kanam nañ dajaloo ñoom ñépp nit ak jinne ñu indi lu mel noonu koo xam ne jàngul jamono bi mu dund jamono ju sori la ci réer ak ci ñàkk xam muy jamono yoo xam ci cedd lañ doon dund seen civilisation taxu ko woon demee noonu ñoom arabe yi parce que ku nekk xamoon na seen dellu ginnaaw par rapport yenn civilisation yi doon dund ci ñu mel na grec yi perse yi romain yi amuñu woon civilisation bu tax ñuy wax ay sàmmkat lañu woon ak ay commercant yuy dem ci désert bi xamuñu woon lu bari ci wàllu diine diine yi mës a ñëw ci ñoom muy xanafiyatu Ibrahim lu bari dañ koo soppi woon comme ni ko Amr ibn Luhay al-Xuzaa yi defee yóbbu ko dugal ci al wasaniya wasaniya bi nga xam ne jëlee na ko fu mel ay booru yaman indi ko tasaare ko ci seen biir ñu nekk ci wasaniya kooku di ci dund àgg ci suufee foo xam ni xelu doomu aadama sax mënu ko munu ko mënu koo xalaat ndax nit ki bu àggee ci suufee ci xelam dem bay jaamu yàlla joo xam ni moom moo jël sunguf wal ko tabax ko mu nekk yàlla di ko jaamu ànd ak yàlla ji di tukki bu xiifee damm loxo bi lekk xiifaat damm tànk bi lekk xam nga kooku maanaam bul laaj naka la xelam suufee parce que loolu ku dem ba di ko def mooy ne ku sori nga ci xel mu suufee muy dund ci nit ñu mel ñoom mën a def bu la bouleversement bi mu def ci àdduna ci doxinu àdduna ak indi loo xamante ni daf cee défier doomu aadama ak jinne ba keroog àdduna du tukki défi bi mi ngi taxaw ci seen kanam pas ñu mais ñu indi saar bi gën a gàtt ci alquran ñu indi ko boobu ba léegi noonam yi nga xam ne ñoo gën a tar lépp lu ñu xam pour neenal diineem ji jéem nañ ko def pour neenal ko ba mu des loolu amul ku wuyu pour jéem a def défi boobu boo jàngee dund yonente bi alayhi salatu wasallam nga gis loolu rek xoolaat ci mbir yooyu firnde yooyu dina la wan ne kii mënul nekk lu dul yonente boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moom moo ko yónni nga xool li dundin bu rafet ci ay teggin ci ay dundin ci ay doxalin salawatullahi wa salaamuhu yoo xamante ni aw xeetam xamuñu ko woon ci ñoom liñ daan dund ci ceddo ci façon ay sëy ay xeetu sëy yoo xamante ni lu mel ne al istibdaa ay nit jege daje ci benn as soxna ku ne di di di jote ak moom di sëy ak moom kenn si ñoom takk ko takk boo xam ni dafa nekk sa borom kër ku ne day sëy moom di faj sa aajo bu demee ba ëmb day xool kenn si ñoom rek na ko yaay bàyyi sama doom kooku daal di jël doom jooju féetale ko boppam ak ay façon mbir yu suufee yoo xam ne kenn mënu la wax euh, mu mu tuddati nu mu suufee moom mu judd ci jaww jooju yàlla sàmm ko ci loolu yëpp mu dem ba màgg yi loolu taq-taq yooyu yëpp mu xëy benn bis di ko raxas di ko dindi benn par benn fan la war a mën a jëlee inspiration boobu man lan moo ko war a mën a inspiré beneen ban civilisation la xam ba tax loolu ñu nekkoon yépp ay maamam ne ci ay bàyyam ne ci mu mën a ñëw benn bis lépp mu remettre ko en question raxas ko di ko dindi yóbbu leen ci al kamal al bashari ci li nga xam ne moo gën a mat ci doomu aadama fu civilisation yam ci doomu aadama mu yóbbu leen foofu ci loo mën a xalaat ci buntu lekk ni ngay lekkee xataa ci teggi nii détail bàyyiwu ci dara ci dem wanag sax da lay jox ay teggin salawatullahi salaam aleykum bu kenn dem wanag ci tool ci yoon bu kenn dem wanag ci garab goo xamante ni taatu garab goo xam dafa am ay fruits nit ñi dañ koy jariñoo ay aadab yoo xam ne ko sax xalaat loolu nit kuy xalaat nii rek di inventé bu bu ñu woowoon borom xam seen jamono yi gën a mag def benn laboratoire toog di xalaat mënuñu woon génne xalaat yu mel noonu salawatullahi wa salaamuhu alayhi wàllu aadabul istidaan tegginu yëglu ci kër booy dem ci kër jàmbur ci niñ nekkee woon nga xam ne daan ñëw kër jàmbur dox ba ni sarax ci kër gi ne ko agsi naan mu ne la bu kenn ñëwatee ci kër jàmbur na yëglu déjà rideau yi ñu def ci kër yi daawuñu ko woon def ci kër yi moom moo digle ñuy def ci kër yi rideau wax na ne boo ñëwee kër jàmbur bul jàkkaarloog bunt bi taxawal à côté benn waaye mos nañoo taxaw ci bunt bi di yëglu mu ne demal nga ni waa ji bu ñuy wax da ngay dem kër jàmbur yëglu c'est pas parce que dañ koy wax nii rek mais dañ koy wax pour nga sa bët bañ a tegu ci lu dul yoon kon boo ñëwee taxaw jàkkaarloo li ci biir kër gi ba pare naan ndax ma agsi agsi nga ba pare parce que sa bët agsi na moo tax mu ne ko innama listidaanu min ajli nadar nee ko mu dem à côté du gis di nekk ci kër gi soog a yëglu ba pare ne kenn ci yéen bu yëgloo ñetti yoon buñ ne ko agsil na agsi buñ ne ko buñ ko waxul dara na dellu yaa xi xoolal teggin yooyu ngi amu ci kii seet si du lor ki ñuy seet si tamit du lor kenn du lor sa morom jëflante boo xamante ni bi dara gën gënu koo rafet yooyu yëpp nga seetlu ko jàng su siira yonent bi alayhi salatu wasalaam lu ci nekk day gën a firndeel dëgguk li mu indi day gën a yokk ngëm yàlla nit ki kon siira tamit jàng ko ci sens boobu ci di ko xool ci côté boobu lu am solo la beneen bi ci des mooy taamulu mahasini al islam dafay am rapport ak li ñu doon wax léegi mooy settantal l'islam ci boppam jàngat ko ak ak rafetaayam loolu ay borom xam bind nañ ci ay téere yoo xam ne lu jar di bàyyi xel la li ñu tuddee mahasinu diinul islam mooy rafetuk l'islam l'islam sewuk noseem ak ni mu préciwe ci ni ko yàlla tëralee ak ni mu ko ni mu ko ni ko yoonalee ci bunt boo dugg nag ci bunt boo dugg nit ki loolu bu ko settantalee dina xam ne tërale nii mënut jóge lu dul ci rabbu sama rabbul ardi was sama mënut a jóge lu dul ci borom asamaan ak suuf ci moom rek la tëralin yu mel ni mën a jóge loolu dina tax mu gën a am dogu xol ci dëggu diine ji nga xam ne mi ngi ci ci bu fekkente ni seetlu na li nga xamante ni moom la yàlla subhanahu wa taala tëralee mbiri lislaam ci lépp nag ci bunt boo dugg lislaam ñëw gim ñëw di sàmmal doomu aadama yi seen bakkan ñëw gim ñëw di sàmmal nit ñi seen i deret mooy seeni i deret sa doom wàllu njur tere ay lu mel ne njaaloo ak yooyu Euh, yi nga xamante ni moom tuddee al maqasid yi nga xam ne mooy jubluwaay yi gën a mag ci lislaam yooyu noonu mooy yi nga xam ne moom mooy mën a euh, garantir dundu doomu adama ci suuf parce que doomu aadama yàlla da ko indi ci suuf mu am benn mission mooy xilaafatul ard mooy imaarul ard muy wutu kaw suuf nekk fi féete kaw ci kaw suuf dundal kaw suuf loolu dund boobu doomu aadama di dundal ci kaw suuf dafa am ay base yoo xam ne bu ci teguwul loolu du mën a nekk seen dund ci kaw suuf dafay yàqu foog mu am ay mbir yoo xam ne des koy sàmm ci dund bi ñuy dund fii ci suñu biir ci kaw suuf wa illaa bu ñu ko defalee jubluwaay bi taxoon ñu ñëw fi loolu dañ koy neenal dañ fiy dund léegi ñu dundal kaw suuf mais dañuy yàq kaw suuf moo tax lislaam sàmm ay mbir yu ama am solo mbir yooyu bokk na ci bakkanu doomu aadama lislaam tëral ay tëralin yu xereñ yoo xam ne tëralin du ko gën a xereñ ci sàmm bakkanu doomu aadama ki ñu teg ci kaw bakkanu doomu adama tooñ ak tooñ bu mu mën a doon moo xam tooñ ci faat ko wala tooñ ci lor ko ak tamit ci wàllu njuru doomu aadama njuram l'islam organisé wàllu njur tere lu mel na njaaloo tere yu bari ubbi buntu sëy yaatal ko tëral ko tëralin bu nose boo xam ne kenn mun te gis ci l'islam tëralin bu gën a nose tëralinu l'islam ci wàllu sëy ci wàllu alal l'islam sàmm alalu doomu aadama sàmm alal yoon yi nga xam ne ci lañ ko war a ute ak yoon nga xamante ni war a ci ute ndax bu ñu ko jëlee def ko ci loxo doomu aadama booyal ko bàyyi ko mu yàq ci kaw suuf ndax ku nekk xam ne alal arme la boo xam ne mën na de mën na détruire àdduna ak li ci biir bu fekkente ni yoonoo luñ ko tëraluñ ko naka noonu tamit l'islam ñëw sàmm li ñuy tuddee wàllu diine diine bi nga xamante ni bii mooy fondement wu lépp mooy tax nit ki dëgg-dëgg mën a réussir ci mission bi tax mu ñëw fii muy diine mooy li tax mu mën a am ngërëmu boromam mooy li tax mu mën a gis yoon bi tax ñu sàkk ko mooy yoon bi war a sóobu di siratul mustaqim di yoon woo xamante ni bu fi wàccoon moom képp ñu ne ko tegu ci du ca tegu diine moo ko ko mën a garantiral l'islam sàmm diine moo tax mu wax ne man baddala diinahu faqtuluhu ku bàyyi diineem faat leen ko l'islam sàmmal doomu aadama yi seen xel ndax xel mën nañu wax ne mooy mënaatu tak taklif xel moom ci la nit ki ci lañ koy mën a tegee jëf ci lay mën a taxawee ci jëf ci jaamu boromam ci lay mën a sukkandiku ngir xam dëggul yàlla subhanahu wa taala wàcce ngir mën jëfe xel boobu l'islam ne nañ ko sàmm bu ko kenn yàq bu ko kenn neenal moo tax mu tere lu mel ne sàngara ak lépp loo xam ne dafay yàq xelu nit ki bu càggante nit ki daf naan am naa sañ-sañ rek maa moom sam bopp su ma neexee damay jëfandikoo lu ma neex l'islam daf naan ko déedéet xel bi la yàlla jox responsabilité la boo xam daf la koo sàmmloo da nga ko war a sàmm waroo koo yàq ila axiri nga gis ne kon l'islam maanaam masaalix yi nga xamante ne bii mooy masaalixu doomu aadama yi amul lu mu ci bàyyi te sàmm ko beneen bi ci des li ñu tuddee darul mafasid mu fegal leen lépp loo xamante ne ay lor la darul mafasid wa jalbul masalih amul lu lislaam bàyyil doomu aadama bu fekkente nit ki seetlu na ci anam boobu muy baabu jalbil masalih wa darul mafasid mu seetlu ci rafetul lislaam ak ñawut tëralinam dina ko may mu gën a dog gën a gëm ci xolam ne l'islam bi muy dëgg ci yàlla subhanahu wa taala wàcce jox ko yonte bi alayhi salatu wasalaam ci la texe nit ñi nekk tey nekk ci ëllëg nit ki lu mu gën a am ñaw gis-gis ci loolu ci wàllu l'islam ak gën koo xam gën a xam ay usulam ak ay furuam di gën a am firnde di gën a am ngëm ci ne lii wax yi la munazal min allah subhanahu wa taala ndax mbir boo ko réeree danga koy noonu dañ ne annaasu aadaau ma jahilu bari na ñuy dal ci lislaam di wax ay mbir wala di rejeter lislaam wala di am ci moom yenn position yi seen jahl moo leen tooñ mooy seen ñàkk xam bu ñàkk xam lislaam moo leen moo tax ñu jugé ko jugement boo xam ne wérul parce que mbir ni nga ko xalaatee rek noonu nga koy attee kon nit ki gën a fexe ba xam lislaam xamin boo xam ne xamin bu wér la bokk na ci lu koy gën a dëgëral ci ngëm yàlla am subhanahu wa taala moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam man kunna fihi wajada bihinna xalaawata al iman mu ne ñetti mbir a ngi ne yoo xam ne ku mu nekk ci moom di nga ca ñeme cax te ngëm yàlla mooy kon mbir la yoo xam ne dafay dolli sa ngëm yàlla mu ne an yakuna allahu wa rasuluhu ahaba ilayhi mimma siwahuma yàlla ko yonentam gënal la leneen lu ñoom ñaar benn wa an yuhiba al mara la yuhibuhu illa lillah nga bëgg nit te yàlla rek moo tax nga bëgg ko wa an yakraha an yauda ila al kufr kama yakrah an yuqdafa bañ a delluwaat sib di delluwaat ci weddi yàlla subhanahu wa taala comme nu mu sibee comme nu mu bañee ñu jël ko ko ci safara loolu dafa yokk ngëm yàlla subhanahu wa mooy nit ki bëgg gi muy bëgg diineem ak sax gi muy sax ci diineem loolu li ko koy may mooy mu gën a góorgóorlu ci gëm yàlla subhanahu wa taala moo tax ibn al qayim di wax ne wal maqsudu anna xawaasa al ummati wa lubaabaha lamma shahidat uquluhum xusna hada ad-din wa jalalatahu wa kamaalahu wa shahidat qubxa ma xaalafahu wa naqasahu wala wa naqadahu wa radaa'atahu xaalata al-imaanu bihi wa mahabbatuhu bashaashata quluubihim falaw xuyyira bayna an yulqaa fi nnaari wa bayna an yaxtaara diinan gayrahu لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار دينا غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله alxaafis ibnu qayim dafay wax ne ñi nga xam ne ñoo gën a kawe ci xeet bi ñi nga xam ne ñoo gën a kawe ci xeetu lislaam mu ne bi nga xamante ni seeni xel seetlu na ba gis rafetuk lislaam ak màggaayam akuk matam ak itam seeni xol seetlu na ba gis ñaawuk ak bonuk ak suufeek lépp loo xam ne dafa waroo ak lislaam lu ñu wër lu ñu lu leen wér la lox lu ñu xam la xam rafetuk lislaam xam matuk lislaam xam tamit ñaawuk ak matadik lépp loo xam ne dafa waroo ak lislaam mu ne loolu ba mu amee ci ñoom ci la ngëm yàlla gu ak bëgg diine daal di duggee ci seeni xol sax dàkk ci seen i xol ci sababu xam-xam boobu nga xam dañ koo xam te amuñ luñ ciy sikki sàkk mu ne bu ñu tànnaloo woon kenn ci ñoom ci mu dellu ci ginnaaw dellu ginnaaw ci diineem ak ñu jël ko tàbbal ko ci safara mu ne doon na préféré ñu tàbbal ko ci safara muy dellu ginnaaw ci diineem mu ne doon na préféré ñu dagg ay cëram benn par benn ba mu jeex que muy delluwaat ginnaaw ci diine mu ne ñii li tax ñu mën a am lii mooy ne ngëm yàlla dafa nekk lu dal lu sax ci seen yi xol di génn ci diine te itam ñooy ñi gën a yey ci nit ñi ci sax ci diine ba keroog ñu dajeeg seen borom subhanahu wa taala kon xam-xam boobu lu am solo la muy xam lan mooy lislaam xamin boo xamee xamin bu wér la xam lislaam mooy comprendre lislaam comprendre sensu lislaam loolu lu ko nit ki gën a def di gën a am ngëm bu gën a dëgër ci lislaam boobu la lu ko nit ki gën a réere nag di nekk ci ay problème ci di sikki sàkk ci ay mbir ay subuhaat di ko seytaane di gaaral ak yu mel noonu la qiraatu sirati salaf bokk na ba léegi ci yi nga xam ne mën na dimbali nit ki ci mu gën a góorgóorlu ci ngëm yàlla mooy borom xam-xam yi fi jàlloon min asahabati wa taabiin wa man jaa baadahum nga jàng seen dund xam leen lu bari ci nit ñi tey dañuy wax ci asalaf di leen wax mais jànguñu salaf xamuñu man hum man hum salaf dinañ xam ne hum hum alladina aachu fi alqurun althalatha almufaddala mooy ñi jaar ci ñetti siècle yi nga xam ne dañ leen a gënale ci siècle ñëw ci seen ginnaaw ak yeneen aima yi nga xamante ne bi jaar nañ fi ci ginnaaw bi dañuy dellu ci ñoom ci diine baaxoon nañ mais foofu la ci xam-xamam yem mais nga jàng leen jàngat seen dund jàng ci ni ñu nekkoon ci di góorgóorlu ci lislaam ak li leen yàlla subhanahu wa taala defaloon ci xaala bi ñu nekkoon loolu dina gën a sawarloo nit ki dina gën a motiver nit ki ci mu gën a góorgóorlu ci lislaam loolu dafa yokk ngëm yàlla subhanahu wa taala buñ la nettalee seen dund sa xol dafay am loo yëgat ci nga gën a sawaraat yu bari yoo xamante ni gàttañ lu woon nga ci nga commencé di ci gën a góorgóorlu sa ngëm yàlla dafay yokk moo tax cheikh lislam taymi rahimahullah di wax ne man kaana bihim ashbah kaana fihi akmal nit ki bu leen xamee di jéem a góorgóorlu di mel ne ñoom ndax nga dégg ci seen dund liñ la wax ci liñ nekkoon ci axwaal ak ci ay awsaaf yoo xam ne awsaafu kamal la ci niñ daan góorgóorloo seen digganteeg seen boroom ci niñ meloon ci seen diine loolu waral ci yow nga ñee leen ci loolu ba tax ngay góorgóorlu di jéem a mel na ñoom mu ne mat moo ci nekk da nga ciy mottalikoo yow da ci ciy mottali kon jàng dundu gaa yooyu xam ko ak xam na ca nekkoon bokk na ci liy gën a ñaax jàng pour ngëm yàllaam yokk pour mu gën a góorgóorlu jàng seen dund nañ jàngaat dundu salaf man humu salaf ñu jàngaat seen dund kenn par kenn ñu xool ko loolu dinañu gën a sawarloo wat suñu diine beneen bi ci des sabab moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla subhanahu wa taala daan ko jàngal dund ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo jiitu woon ci ay yonent pour saxal xolam ak ñi nga xamante ni bi Euh, ñoom ñoo nekkoon ak moom ci euh, ay saxaaba moo tax bi mu nekkee Makka ñu koy fitnaal li ko mbugal yàlla subhanahu wa taala wàcc ci moom ay aaya bokk na ci qissatu ashaabil ka mooy xale yooyu nga xam ñoo génnoon ngir rawale seen diine yàlla nattu leen leen di dal dale leen fa ak ay coono yoo xam ne nekkoon saxaaba yi daan ñëw ci moom di ko jooytu naan ko ala tastansir lana ndax doo ñaan yàlla mu defal ñu ndimbal suñuy noonu solal nañu yonente bi alayhi salatu wasallam naan leen da ngeen a yàkkamti ñi leen jiitu woon am na si ñoom ñoo xam ne lii ak lii daan lañ leen ko def te daawul tax ñu dellu ci seen ngëm yàlla bokk na ci li mu wax kenn ci ñoom daan nañ ko jël gas ko ba mu xóot ñu suul ko ba nga xam ne du mën a yëngatu ñu jël si teg ko ci digg ci kaw ci kaw bopp bi ne ko weddil yàlla mu bañ ñu xaaj xaaj ko ci digg bi benn paar dali na le benn paar dali na le te du tax mu yëngatu ci diineem loolu bu leen koy wax lan lay def ci xolu ay saxaabaam lan lay def ci xolu ay bu dee am na ci ay ci àdduna ay nit ñu yàlla jaral loolu kon ñu war nañoo jaral lu ko loolu lay def ci seen i xol moo tax jàng dund gaa yooyu nekk lu am solo kon yooyu yëpp muy juróomi mbir yooyu ñu tudd yooyu yëpp dafay delluwaat ci jàng xam-xam bi ñu doon wax dafay delluwaat ci jàng xam-xam bi ñu doon wax ne dafay yokk ngëm yàlla subhanahu wa taala ci xolu nit ki dafay yokk ngëm yàlla ci xolu nit ki juróomi mbir yooyu ñu wax yëpp dafay delluwaat ci xam-xam boobu nga xam ne dafay jariñ bu ko nit ki xamee da koy jariñ ci ngëm yàlla juróom yooyu ñu wax dafay dellu ci xeetu xam-xam boobu kon xam-xam boobu sabab la min asbaabi ziyadati al iman euh, sababu thani mu ñaareelu sabab bi mooy ak taamul fi ayati llahi al kawniya njëkk bi kon mooy jàng xam-xam bi nga xam moom ñu tuddee ayatullahi shar'iyya am na beneen xaaju aaya bu ñu tuddee ayatullahi al kawniya muy mbindeef yàlla yi yi nga xam ne ay firnde la ci firnde yàlla yi mais ay mbindeef la yéla ay firnde la ci firndeef ci mbir ci firnde yàlla yi waaye lu yàlla wàcce wax yu ko jox ko yonentam bi alayhi salatu wasalaam la lu ñuy xam la lii nag ay jëmm la ay jëmm la lu am la loolu lañ tuddee al kawn mais ay ayat lañ koy tuddee lu tax aaya parce ay alamat la ala allah subhanahu wa taala ay alamat la ala allah subhanahu wa taala moo ñuy tuddee bindee fi yàlla yi aalamuun alhamdulilahi rabbil alamin alamin jamu alam parce que alam mooy aaya mooy al amaara ad dalla ala shay mooy loo xamante ne dafay tegtale ci dara li tax loolu parce وجود المخلوق دليل على وجود الخالق وجود المصنوع دليل على وجود الصانع إلى آخره loolu lañ tuddee دليل الأثر على المؤثر mooy tegtaloo ci dara pour xam li ko li amal tegtaloo ci dara ak amam pour xam ne li ko amal kon am na bu mbindeef amee kon am na ku ko bind bu mbindeef amee mooy kon ku ko bind am na kon yàlla subhanahu wa loolu moo tax bi mu ñu bëggee xam loo boppam bokk na ci yi mu wax ne nañ ci xool pour xam yàlla subhanahu wa taala mu ne xool leen ci li ma bind xool leen ci li ma bind bokk na ci yi leen di jox ay signe pour ngeen xamee ci yàlla subhanahu wa taala ndax boo xoolee ci li yàlla bind nga gis ak noseem gis ak xereñam du moom moo ko may boppam kon dalaa war a tegtal xereñub yàlla boo gisee ak màggaayam yonente bi alayhi salatu wasallam di la wax ne la asamaan ak suuf yi di boo ko comparé ak kursi yi dafay mel ne nga jël ab jaaro sànni ko ci désert ci màggaayu kursi yi nga jël kursi yi comparé ko ak arche dafay mel ne nga jël ab jaaro sànni ko ci désert nga xool màggaay yu mel noonu yonent bi alayhi salaam di wax ci malaaka yi nga xam ne yàlla may na ko mu wax ci seen mbir di wax kenn ci ñoom koo xamante ne dangay dox euh, ñetti téeméeri at nga jóge ci mbagg li pour mën a àgg ci nopp bi màggaayu kooku màggaay la ci ki ko ci ku ko bind subhanahu wa taala moo tax ma almaxluq dalilun ala azamati alxaaliq da ngay tegtaloo mbindeefi borom bi subhanahu wa taala ngir di gën a am kóolute ci yàlla boo gisee lu la jaaxal ci mbindeefi yàlla yi nga ni subhanallahi wala tabaraka allahu ahsanul xaaliqin nga sàbbaal yàlla wala nga tudd mu agaayu yàlla subhanahu wa taala akub teddaangeem moom mi nga xamante ni moo gën a xereñ gën a rafet ci képp kuy bind ndax fi'lan moom mooy kiy bind mbindeef yi li ñuy def même bu ñu ko tuddee bind loolu du bind loolu sàkk du création ndax jële mbir ci dara yóbbu ko ci beneen anam loolu dangaa ngaa changer rek da ngaa rek mais sàkk loolu sàkk mooy ki nga xamante ni dafay sàkk ci lu dul dara ci lu dul dara kooku mooy kiy sàkk subhanahu wa taala kon kéemtaan boo gis ci mbindeef yàlla yi subhanahu wa taala tegtaloo ci ci màggaayu yàlla tegtaloo ci ci yàlla subhanahu wa taala tegtaloo ci ci yàlla moo tax kon sàggante weesuwul sàggante nit ki di nekk di xëy bis bu ne di jàkkaarloog lu ko mën a wan màggaayu yàlla lu ko war a mën a wan lu mu ragalee yàlla te du ragal yàlla subhanahu wa moo tax borom xam ne di wax ne ñàkk jom dëgg mooy ñeme sa borom ragal bindeefu yàlla ndax képp ku ñeme yàlla yàlla bind na loo xam ne yow ragal nga ko loolu ragal na yàlla kon boo ñemee yàlla da ngaa ñàkk jom moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ne inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wa nahaari la ayatin li ulil ah, dafay wax ne ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجبات من عظمة الخلق الدالة على قدرة خالقها وعظمتها ولو عظمته وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة أو الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإيمان وسره الشيخ السعدي dafay wax ne bokk na ci asbaab yi nga xam ne dafay xëcc nit ki di ko jëmale ci ngëm yàlla subhanahu wa dëgg ngëm di yokk ngëm yàlla mu ne muy settantal ak di xool mbindee fi yàlla yi subhanahu wa taala ci asamaan ak suuf ak li ci yàlla subhanahu wa taala def ci ay xeeti mbindeef yoo xam ne kenn xamul toll ak itam di xool ci jëmmi doomu aadama ci boppam ak ni ko yàlla subhanahu wa taala ni mu ko tàggatee ak melokaan yi ko yàlla subhanahu wa defal mu ne loolu boo ko seetloo mbir yooyu mu ne luy xëcc nit la di ko jëmale ci mu gëm yàlla subhanahu wa taala mu gëm yàlla mooy bu dee ku weddi woon yàlla loolu lu war a mën a waral ci moom mu am ngëm yàlla la bu dee ku ngëm yàllaam néewoon la loolu lu yokk ngëm yàllaam la mu ne ndax nekk na ci biir mbindeef yooyu ak màggaay ci ni leen yàlla bindee ci suuf ni mu ni mu màggee géej ni mu màggee ak li ci nekk lépp ci màggaay ak asamaan ni mu màggee mu ne waaye màggaay yooyu yépp dafay tegtale màggaayu ki leen sàkk subhanahu wa taala mu ne li ci yàlla def itam ci ak rafet ak ak nose ci ni ko tëralee goo xam ni dafa sax jaaxal xelu doomu aadama mu ne loolu yépp dafay firndeel di wane màggaayu borom bi subhanahu wa taala mu ne mbir yooyu yépp bu ko nit ki settantalee am na ca lu ca nekk lu ko war a mën a woo pour ngëm yàlla am yokk am na ca lu ca nekk lu ko war a mën a yoo pour nga pour lu ko woo pour ngëm yàlla am yokk pour mu gën a gëm ne lii am na ku ko ku ko sàkk mu bokk ci ñi nga xam ni dañuy nekk bis bu nekk di gëstu ak di xool ci mbindeef yàlla yi di gën di weddi yàlla nasalullah salamata wa afia di gën di weddi yàlla ci euh, aljahd wal ibaada mooy ci lànk ci bañ a gëm ginnaaw bu ñu gisee firnde yàlla yi subhanahu wa taala li tax loolu mooy bu ñu gisee mbindeef yàlla yi dañ ci war a tegtaloo ci amuk yàlla ñoom ñu bëgg gisee ci mbindeef yàlla yi liy wane ne yàlla amul nga bëgg a xoolee ci mbindeef yi looy wane la yàlla amul loolu rek moo lay wane ne la kon yaa am problème <coughs> wane ne mbindeef yi dafa amul woon benn jamono jékki-jékki am benn am benn événement bu xew benn explosion am benn phénomène bu am bouleversement am ci jaww ci mbir mi léegi ci la créature bi jógoo juddoo liy jaar nii liy jaar na le affaire yi di évoluer li nekkoon li ba mu yàgg mu nekk lii li nekkoon li ba mu yàgg mu nekk lii ci la dund amee ci la dund jóge yaa xi loolu xel gënu koo gënu koo suufe hasard munta amal dara hasard mënut amal dara dara nekku fi woon jékki-jékki hasard amal ko loolu mënul nekk lu amul woon ba jamono mu am fokk mu am lu fi mës a nekk loo xam ne moom moo ko amal ndax ñaari mbir moo am lu mës a am ak loo xamante ni bii euh, ak loo xamante ni bi dafa sos dafa dafa sosu dafa gaar loo xamante ni bi dafa bind ak loo xamante ni dañ koo bind ba pare loo xamante ne ci hasard la amee du am ak nose désordre moo ciy nekk mun a nose nose ak àdduna bi ak ni mu tëddee bokk na ci firnde yi gën a ak li fi nekk ci ay xawaaniin euh, mooy ay règles yoo xamante ni kenn mënu koo soppi kenn mënu koo dindi doomu aadama tey bu tafoon ay bakkanam ak gémmiñam ne du nooy day faatu foog ngelaw lu dugg di génn loolu règle la moom yàlla moo ko def mënu ci dara bu duggoon ci ndox mi ne ca lay dund dafay faatu jën bi boo ko génnee ci biti mu bëgg munta yi dafay faatu naka noonu maan lu nekk dafa am nu ko yàlla subhanahu wa taala tëralee ni ñu ko tëralee noo xam ne kenn mënu koo bouleverser ordre boobu ñu fi teg loolu dafay wane ne am na feex leen benn maître boo xam ne moo fi tëral lii moo ko fi établir kenn mënu koo jalgati loolu mënut a jóge ci ci hasard hasard mënut a créer loolu kon jullit bi moom buy xool ci mbindee fi yàlla yi def ciy gisee chaque fois lu koy yokk ngëm yàllam ci borom subhanahu wa taala muy gën di am kóolute ci ne lii am na ku ko sàkk am na ku ko fi indi jékki-jékkiwul am bis bu ne lu mu gis ci lu sosu ci lu yokk ci xam-xamam ci mbindee fi yàlla yi loo xam ne xamu ko woon mu ciy gën di daj ci gën di yëg màggaay yàlla subhanahu wa taala loolu di waral ngëm yàllam di yokk euh, ala kulli xaal ñu ngi may ishaara ne waxtu bi jeex na kon ñu taxaw foofu euh, wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain